بمدادي أنت ربي وكنت لي بودادي لك شكري لجنة بمدادي لك شكري على جميع علال سقدا لي لجنة ساسدادي لك كل يا سلبقا دابقاين آية منك سرمدا يا عمادي هب لي يا دار الأدو مسرورا لحبيب به عليك اعتمادي منك أبخي لو صلاح ما يودد ذي بقاء يكون لي بمرادي هني الدهر تاردا وأمان هني لي أن الوباء والجراد مد لي من كما أشاء في دوام وبخاتر فعل علا بانفراد منك أبغي بلا انتهاء سلامي واسع للملل كرام العباد دائم مكتوب للرداء بيالي ولتباشر خير الورى بمدادي إن ذا الجود والهلا والجمال مالك الملك ذا الهدى والكمال لائق بشكر وشكر وبه رمت شكره بالحلال ليسوق الحلال دون حساب وبخات يذيل كل الدلال هدم دورا جانا بدواما وبخير يجود لي ذا جمال مد لي فادله بخير انتهاء بالنبي الكريم دون اختلالي حمد يا دهر للذي ساق فلل بالرسول الأمين لي ذا اتصالي مد لي مالك تكرم باخ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 ñoo ngi yëkkati nuyób lislaam mu di asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jiital ci nuyó bi muhammadul muntaka ñaan yàlla suñu borom yàggal ko fi lool te mu wér ba naal yu mu naal naal yooyu yegg mu ànd mu naal yeneen naal ànd kook taalibi jullit ak mboolem njabootu sëriñ Tuubaa gi noonu lañ koy ñaanele sëriñ cheikh Modou Mbenda Fall ñaan yàlla suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ba naal yi mu naal ci yoonu maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ànd ko moom ci barke borom Touba gannaaw loolu mbokk yi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi euh, di ñëw rek di jiital nuyoo ci kilifa yi nga xamante ne ñoom ñooy daayira muqaddimatul xidma ak délégation bi nga xamante ne ànd nañoo moom ci njiital sëriñ Fàllu Mbàkke Touba sëriñ Abdul Ahad Buso Cerno sëriñ Abdul Xaadir Buso sëriñ Cheikh sëriñ Fadilu Mbàkke Atu Njaay mi ngi fi teew ànd ci délégation bi sëriñ Abdul Xaadir Buso moom mi ngi fi teew ànd ci délégation bi sëriñ Matar Kan mi ngi fi teew ànd moom ci délégation daayira Muxaddamatul Xidma Baye Saliou Ñang moom it mi ngi fi teew ànd ci délégation bi Sëriñ Abdou Samad Lum moom mi ngi fi teew ànd ci délégation bi Sëriñ Sëriñ Abdul Ahad Diop moom mi ngi fi teew ànd ci délégation bi moom it mi ngi fi teew ànd ci délégation bi sëriñ Mouhamadou sëriñ Mouhamadou ngoom moom it mi ngi fi teew ànd ci délégation daayira Muxaddamatul Xidma bi nga xamante ne sëriñ Fàllu Mbàkke moo jiite délégation bi kon ñooñu ñooy ñooñu ñooy délégation bi nga xamante ne ñoom ñoo jóge ba Tuubaa ñëw fekk ci mbooleem mbooleem daayira yi nga xamante ne ñoom la àndal ci jumaay Tuubaa muy treize daayira yi nga xamante ne ñoom ñoom ñoom la ñu àndal liggéey bi kon xanaa bu ko defee rek dañuy dañuy gën a njëkkanteeg waxtu bi daayira daayira muqaddimatul xidma Tuubaa ñi ngi fi teew daayira muqaddimatul xidma section Dakar ñi ngi fi teew xidma masalikul jinaan mi ngi fi teew daayira fatxul xafaar mi ngi fi teew daayira masalikul jinaan prop ñoom ñi ngi fi teew daayira wakaana xaqan ñoom it ñi ngi fi teew daayira xidmatu rawdati ñoom ñi ngi fi teew daayira daayira daayira ilhaamul latiful xabiir ñoom ñi ngi fi teew daay xidma yëmbal ñoom it ñi ngi fi teew daay xidma Louga ñoom it ñi ngi fi teew daayira xidma section section euh, daayira daayira xidma sécurité jumaay Touba ñi ngi fi teew daayira istixaama ñi ngi fi teew daayira bi nga xamante ne mooy sécurité Lamp Fall ñi ngi fi teew kon daayira yooyu mooy daayira yi nga xamante ne teew nañu fii ci jataay bi ànd ak ànd ak seen jëwriñ ak daayira bi nga xamante ne mooy daayira daayira eaux et ñoom it ñi ngi fi teew kenn ku ci nekk yaa ngi ànd ak sa mbooloo ak sa ak sa jëwriñ ñi ngi leen di dalal di leen wax naan ahlan wa sahlan di leen ñaanal jàmm ak tawféex ak salaam di ñaan ci barke borom Touba lii nga xamante ne sëriñ bi bëgg na ko ba tax na daje bii daje bii nii am fii ñi ngi koy ñi ngi koy soog a amal fii ci ndakaaru ci turu daayira mu xaddimatul xidma mi nga xamante ne moom mooy kilifa jataay bi kon kon ñuy ñaan ci barke borom Touba yal lii ñu tàmbali yàlla nañ ko tàmbaleek bismillahi rahmaani rahim te eggale koog alhamdulillahi rabbil di ñaan lii nga xamante ne moom lañu ñu dëgmal muy màggalu Touba ñi ngi ñaan ci barke borom Touba yàlla nañ ci sëriñ bi yóbbu jàmm ci barke xaadim rasul ba ni nga xamante ne noonu la ko sëriñ bi bëggee sante ko noonu waa mu xaddimatul xidma ñu fas yéene koo defee noonu te ànd ceeg tey ñaan ànd ceeg ngërëmu cheikhul xadim ci barke borom Touba gannaaw gannaaw loolee dañuy dañuy gën a njëkkanteeg waxtu wi ki nga xamante ne moo moo mooy daayira xidma masalikul jinaan nga xam ne sëriñ Tayba Njaay mooy moom mooy jëwriñ ji nga xam ne barab bii ñu nekk ñoom ñoo ko yor comme ni nga xam ne noonu la daayira mu xadimatul xidma bu Touba yore jumaay Touba noonu la xidma masalikul jinaan yore fii nga xamante ne mooy masalikul jinaan ci wàllu sàppe yi ak wàllu bale beeg lépp kon kon bu ko defee dañuy woo sëriñ Tayba Njaay mu ñëw dalal mbokki taalibe yi ci euh, ñu dalal suñu kilifa yi nga xam ne ñoo jóge ba Touba mu Muxaddamatul Xidma mu dalal leen mu dalal leen ci turu ci turu jëwriñ Mbàkke yu fay kon ñoo ngi ñoo ngi santaat ñëpp di jaajëfal ñëpp di leen sant ci teewaay bi di ñaan ci barke Cheikhul Khadim yàlla nañ ci daje ngërëmu Cheikhul Khadim ci barke borom Touba kon jërë jëf kon bu ko defee Serigne Tayba njaay mën ngaa jege si dalal suñu kilifa yu tedd yi rahmaani rahim rabbi saxri sadri wa yassiri amri waxlul xoqdatam min lisaani yaqu xawli mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ci turu suñu jëwriñ Cheikh Mouhamadul Mbakiw Fay lañ leen di nuyoo ginnaaw bu ñu nuyoo di siyaare suñu yaakaar tey ak ëllëg mu Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal suñu borom guddalu faram sa wéral ay cëram waaye di ko ñaanal nit taalib bu mag ba muritam ba sëriñ Amdi Moodu Mbenda di ko ñaanal Cheikh Mouhamadul Bachir moom sëñ Abdou Khadir mu yor kàddoom ci yoon wi waaye di ko ñaanal suñu jëwriñ ju jàmbaare ji nga xam ne moo yor kàddoom ci ndakaaru ak li ko wër waaye imaamu ratibu masalikul jinaan muy Cheikh Mouhamadou Bassir loo ànd ak sëriñ Xaadim ak sëriñ Issa Gueye ak ñi mu àndal ñëpp ci liggéey bi ñu ngi leen di ñaanal di leen siyaare di ñaanal coordinateur sëriñ Abdou Khader Fall ak sëriñ Samba Diaw mi nga xam ne dara du yëngu ci jumaa ji sa coordonné wuñ ko nga xam ne jotaay bii nga xam ne ñi ngi koy def laataa muy am ci ndëgalu sëñ bàkkiwu la ñu ko amee kon daayira xitma masaalikul jinaan ñi ngi dalal mbooleem daayira yi nga xam ne saa su nekk ñi ngi leen di seen fii ci pakk bi muy ci gàmm yi ci koor gi ci laylatul xadar yi waaye it ci nganuk sëriñ bi nga xam ne jàppoon na ko ren ñëw fi ñu leen ci doon gis ci liggéey bu am solo bi waaye rawatina nag suñu royteef yi nga xam ne ñoo tànn barab bii di barabu Seexul Xadiim nga xam ne dara waratuñ koo def ci ndakaaru sa ñëwuñu ci pàkk bi dafa ko fi waaye ndokk ba daayira Muxaddamatul Xidma ci njiital sëñ Fallu Mbàkke mi ñu koy saare ak ñi mu ñëpp ñu xam ne fenn fu ñu mën a daje furut ci barab bii gënalul sëriñ bi ñu tànn Masaalikul Jinaan ñëw fii daje fi ngir waxtaan ak ñun loo xam ne daa jëm ci màggalu Tuubaa muy loo xam ne nag luy doog di am la waaye nañoo yëg ne rek njabootuk Sëñ Tuubaa dañoo war a doon wenn say di yëkkateendoo di tegandoo di yerandoo di wàccendoo loolu moo waral jotaay bu mel nii am tey ñun nag daayira xidma masaalikul jinaan mu mel ne ñun lañ fekk si waaye déedéet fekk si wuñ daayira xidma masaalikul jinaan muriti ndakaaru yëpp la ñu fekk si mën nga koo yaatal sax ba ne julliti ndakaaru yëpp la fekk si ndax nag màggalu Tuubaa du du du ay murit rek ko moom du ay Sénégal rek ko moom julliti àdduna bi yëpp ñoo ko moom kon jataay bii Muxaddamatul Xidma ñëw def si ko fii ci Ndakaaru ñu ngi ciy am mbégte di leen ci dalal di sant baax di xam ne rek keroog ba ñu tàmbalee dugg ci seen yoxo di ñëw màggal Tuubaa di ànd ak yéen liggéey bi ci leen yëgee ne ñun kat ñun war nañoo yokk ci fànn yëpp waaye yëg nañ ne yokk nañ ci fànn yëpp ndax suñ fàllu suñ Abdou Sabat ak ñi nga àndal kuñ ci jokkal ku ne rek. lam ñuy defal mooy yaatal la ñu liggéey bi yaakaar naa ne liggéey bi mi ngi gën a yaat incha allah kon bég nañu sant nañu bu baax a baax a baax day gudd day gàtt rek ci ñu tënk suñu kàddu foofu di sant di gërëm ñëpp rawatina daayira yi nga xam ne dañoo ñëw ànd ak ñun ci jotaay bii di leen nuyu bu baax a baax a baax a baax di nuyu nag bu baax a baax a baax am gis naa fi suñu baay bu baax boo xam ne muy baay Njuga Jeng jiite daayira yaari guddi yi Ndakaaru ñëw toog ci jotaay bi ànd ak Baye Kalsaan ak ñi àndal ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ñoom barab bi miin na leen xam leen wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu salaam wa rahmatullahi mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen di siyaare yéen ñëpp di jéem a dugg nag ki jotaay bi ci kàdd yoo xam ne nii insha bi war na fee jub ñun ñëpp ñu jëfe ko njëkk loolu ñu ngi sant bu baax alxaaji sëriñ Mbàkke yu fay sëriñ Abdul Xaadir Faal sëriñ Saer ak sëñ Tayba ak sëñ Jibi ak mboolem président daay yi nga xam ne nii ñëw fi teew ñépp mbokk yi jotaay bii li ko waral mooy jotaayu jàng ak jàngale ñu jóge Touba ci ndigalul suñ président suñu affaire bu sa imam ñëw fii ngir waxtaane liggéey bi ñuy xaar ci jumaa ju mag ja ci biir màggal te léeg-léeg am yu nuy gaar ci biir liggéey bi te yooyu gaar nag ñu war koo jañ continuer liggéey bi moo tax ñu ànd ak suñ ñaari jëwriñ kenn ki di wax ci wàllu sécurité kenn ki wax ci wàllu aar sa bopp wala boog prévention mbooloo mii fi teew nag di xidma bu ne la lan kan kan mooy daayira xidma wala lan mooy daayira xidma da nga naan mooy daayira bi nga xam ne nii mu ngi juddu ci mars 1994 bàyyi koo ci ay ndaw yu bokkoon fu noon jànge di doomi dëkk ba di doomi soxna amoon xelum ak xalaatub liggéeyal sëriñ Touba ci dëkk ba ñoom ñépp seen xel jëm ci jumaa ja ñu àndandoo kilifa ya dem teew ci kanam sëriñ Saalix Mbàkke radiyallaahu wax ko xalaat bi am mu nangul ñu ko tuddee ñu aw tur muy muqaddamatul xidma jox ñu ab liggéey muy bale jumaa ji muy set taxawu julli ajjuma yi yokkal ci boppam julli ayit yi tëbaski ak korite daayira boobu moo fekkoon jumaa ci melokaan woo xam ne nii ñi xamoon démb jumaa ji xam ne ne daayira ba mënu fa ñàkk ndax taxaw na fa liggéeyu baree bari daayira boobu moo amoon gis-gisub xutba yi am ci jumaa ji doon xutbay arab te nit ñu war a xam lañ cay wax war koo jëfe ñu ànd dem ci seex saalixu mbàkke wax ceeg moom mu nangul ñu ko ba loolu moo indi ci jumaay Tuubaa njëkk ñuy julli àjjuma ñuy def ay xutbay wolof te loolu moo law ci mboole mboolem jàkkay murit yépp wala jàkkay yépp foofu la juddoo daayira boobu mooy daal mi nga xam ne nii Cheikh Saliou Mbacké moo doon jël ay ndigalam di la ko jox direct du jaar ci kenn mooy jox ndigalul ñuy soppi ak a setal ak a taxawu mboolem luy piil ba ventilo lu am ci jumaa ja moo indi ñun saa bu ñu jub safar wala koor wala saa bu gisee ne am na ay piil yu lakk ñu dagale suñu koom ñëw taxaw sensé loolu soppi ko ba mel na war a mel daayira boobu moom la Serigne Saliou Mbacke joxoon ndigalul mu génn ci pénc mi ak li wër pénc mépp lépp lu xeetoog njaay wala weccet wuy mànkiku walla ñoo xam ne nii lan fay def di waxtaane doonul ak li war a nit ñi war a dégg maam ay diwaankat mu jox leen ndigal ñu génn leen li wër pénc mépp daayira boobu ay nit masanoo jëm ci moom ay kilifa ca dëkk ba bëggoon a dundal koor ni ko Makka ak Madina dundale Cheikh Saliou yebal leen ci ñun ñu ànd kook ñoom loolu moo indi daayira xidma di taxawu koor ci waxtaan yaag da ci aju yépp koor gu ne daayira boobu moom sëñ Saliou Mbàkke joxoon ndigalul mu saytul ko armée lu njëkk yi ndax dafa daan xew ci ay lu jaarul yoon te sang maag sang baag yu mel noonu ñoo ko taxawu balam fa bëggoon lépp mu am ko daayira boobu ginnaaw Cheikh Saalih Mbacke si ay baara moo jox ndigal daayira boobu ñuy ànd ci comité d'organisation màggal Touba képp kuy gan gu bàyyi ko ci ab dëkk doon ganu sëriñ Touba nga xam ne ci waxiin sëriñ Touba boon mu ngi àddu gi zahiri moo ko war a dalal daayira ñoo koy tagal ñoo koy dalal ñoo koy wutal tooguwaay bu baax ngir mën a def ay ziyaaram lépp daayira boobu mooy baat bi nga xam ne nii jamono si Seex Mati Lay moom la joxoon ndigal bi mu tëggee abdul njëkk yi ne ko saytul ma armeeli Baqiya ya ni nga saytoo penc mi ak jumaa jëg lépp kon ci tënk daayira boobu moo ñëw fii fekk si ay ay ay nattangoom yu mbokkal ay bëgg-bëgg yu mbokkal ay doxiin muy fukki daayira yi ak ñett yoo xam ne nii ñun ñoo àndandoo bëgg a liggéey bi anti jumaa yi ci mbooleem màggal gépp kon loolu moo tax ñu ñëw fii daayira bii ma leen fekk si kon nag ngir njëkkante waxtu wi dañuy commencé liggéey bi rek jox sunu mbokk mi yoroon wàllu waajtaayu sapeur yi ndax xam ngeen ne jumaa ji dafa bari ay coin fiil nit ñi dafa indi ay gaz léeg nga gis ko daan doomu yaa mu tarxiis daanu gis fee koo xam nii mu xëm léegi gis loo xam ne nii ku daanu ba bi metti mu jàmbat yooyu bu la gaar ci liggéey bi nag tey bu la gaaree danga nga war a taxawu ba moom metti na moobu saafaru wala ba mu tane kon dana jaadu nga xam fooy si tànk soo gisee lu la gaar lu mel noonu nooy def soo paree tamit soo gisee loo war a aar ci sécurité nooy aare sa bopp aar ñi nga àndal aar ñiy siyaare si ak ñi julli si ba ku ñëw mën a julli mën a ziyaar doo gaañ kenn kenn du la gaañ nga génn ak jàmm dugg ak jàmm loolu lépp dafa laaj ay waxtaan moo tax ñu ànd ak suñ mbokk yi kuy waxtaanee loolu xam naa kon ci tënk rek ñu commencé ci sëñ Sapeur mu ñëw leeral li bëgg exposé ak li muy àmbal ci ay wax ñu amandoo muy capitaine Cissé mu commencé si capitaine si mu ñëw pour leeral ni bëgg a leeral ci wàllu liggéeyam. baax na bisimilah bon maa ngi leen nuyu yéen ñëpp man maa ngi wuyoo si turu Moussa si mu jege tuuti baax na maa ngi nuyu mbooloo bi tey yéen ñëpp maa ngi wuyoo si bi Moussa Sy léegi ndogal moo ndigal moo bàyyee ko ba si camp bi ñu wax jëppal pour ma ñëw def si sensibilisation ci wàllu màggal bi boo déggee ma ne sensibilisation bokkut ak formation bokkut ak stage sensibilisation wute nag formation maanaam sensibilisation maanaam genre prévention la pour bis bi bu jotee ñi nga xamante ne dañuy nekk ku ci nekk fa nga nekk nga mën a jël say matukaay pour wàññi risques yi ak yenn yi war a mën a am léegi bu ko defee waaw léegi bu ko defee euh, dañuy jël yenn thème ya nga xamante ne mën na fa mën a xew comme lu jëm ci lakk-lakk si ñuy togg ak maanaam ay malaise maanaam nit ku jékki-jékki daanu xëm te xamuloo lan moo ko xamloo ak ku xëm ci boppam ban position nga ko war a def en attendant sapeur yi ñëw wala médecins yi ñëw wala secouristes yi léegi thème bi ñuy commencé mooy thème mu euh, feu de cuisson maanaam ñi nga xamante ne tey dina acte bi principal bi nga xamante ne mooy am ci togg yi mooy euh, bërëbu toggukaay yi maanaam ña fay ne ñoom it war nañoo am xam-xam pour mën a paare yenn yi nga yu war a mën a xew ci cuisine yi maanaam feu maanaam ñi nga xamante ne dañuy teg seen cin xaw koo fàtte cin bi jàpp na ngay def pour fay cin yooyu noonu ak tamit ña nga xam ne dañuy toggee gaz gaz bi mën naa jékki-jékki di peer loolu tamit ay risque la maanaam la nga war a jël matukaay yi nga war a jël pour parer loolu maanaam bi njëkk mooy cin yi ngaay di teg di ko toggee maanaam mun nga teg sa cin fàtte ko affaire bi jàpp léegi li secouriste yi digale ci loolu wala sapeur yi liñ digale ci loolu moo di loolu bu amee maanaam nga bañ a paniquer bañ a tiit nga jël morceau wala serviette bu mag boo xamante ne mën naa muur ub cin bi yëpp il faut ko tamit mu tolloog cin bi na mu toll maanaam de préférence comme cin yu mag yi mbana lay doon foofu nga am serviette bu mag nga tooyal ko boo ko tooyalee xaw koo wàññi tuuti wañ ko tuuti wàññi ko nga ñëw nga ëpp ko ci kaw muur ko ci kaw cin liy tàkk après dinañ jéem a def buñ génnee ci biti ñu jéem a def démonstration bu mel ni loolu loolu bu weesoo maanaam gaz buy peer mën na fa ma am na ñoo xam ne du ñu toggee mat gaz la ñuy toggee léegi moom la ñuy wax fuite de gaz enflammé mën na doon fuite de gaz enflammé mën na doon fuite de gaz tout court fuite de gaz bu ngeen ko déggee maanaam mooy gaz buy peer li gars yi li leen di tiitloo lu bëri ñoom dañuy yaakaar ne boo nañ leen gaz rek seen xel ci lan lay dem ci explosion maanaam gaz yombut a explosé noonu gaz li koy explosé loo mooy mu nekk ci biir néeg néeg bi di tàkk maanaam température ambiante bi nekk ci biir néeg bi mooy tàkkloo gaz mais bu dee gaz kese à l'air libre bu fekkee dafay fiite li ñuy wax nga bañ koo jéem a fay maanaam bu fekkee dafay dafay fuite ànd ak flam maanaam mu ngi tàkk mooy nga bañ koo fay lan moo tax ñu ne nga bañ koo fay lan la ñuy bañ mooy nga créer atmosphère boo xamante ne c'est explosif li may wax nii day concerner ki nga xam ne day togg ci endroit bu clos bu ferme mais bu fekkee nag fi nga nekk c'est pas fermé c'est à l'air libre mun nga ko fay mooy naa quoi mooy li mu leen waxoon sànq rek jéem a étouffer loolu noonu nuñ koy étouffer mooy jël morceau encore tooyalaat ko teg ko ci beg bi nga xam ne mooy peer wala bu fekkee tuyau bi moom mooy fat nga jéem a maintenir tuyau bi jël serviette boobu noonu nga tooyal teg ko ci kawam maanaam danga koy étouffer am na ñu nga xamante ne nag bu ñu amul loolu suuf lañ si def mais suuf su tooy maanaam jéem a étouffer loolu boo gisee ñu naan fût de gaz enflammé kenn du ko fay mooy li ñuy ragal bu fekkee espace clos la mooy li ma doon wax sànq bu fekkee espace bi dafa clos maanaam néeg bu xaw a clos fenêtre yi tijjeekuñ bëreeti euh, bunt yi tijjeekuñ léegi bu fekkee fuite bi mu ngi am nga fay ko te tëjuloo fuite bi kon gaz baa ngi continuer di di peer li nit ñi xamul mooy gaz mooy mooy lakk gaz boobu noonu moom mooy lakk kon bu fekkee fay nga ko jël nga morceau bi fay ko fuite bi di continuer contact rek contact kese doy na pour mu taalaat moom la ñuy wax atmosphère explosive mais bu fekkee li ci ëpp bu fekkee màggal bi li ci ëpp gars yi li ñuy faral di utiliser mooy à l'air libre la ñuy togg kon foofu li ñu leen recommander mooy fût de gaz enflammé tooyalal morceau wala suuf su tooy nga jëm koo fatt ba pare gaz bi boo ko mënee tëj nga tëj boo ko munta tëj nga jéem a fay ba pare nga tëj dégg ngeen de loolu bu weesoo. je pense que foofu côté boobu noonu leer na tuuti léegi bu loolu weesoo dañuy jàll ci li ñuy wax inconscience maanaam nit ku xëm wala ñu jël malaise ba pare mooy malaise maanaam nit koo xamante ne dafa jékki-jékki am lu koy metti te xamul lan moo koy metti wala lu koy indi mu jékki-jékki man de damay miir wala affaire demee noonu mu jékki-jékki toog nga fekk fa na nga war njëkk a def mooy sa réaction yow maanaam malaise. d'abord il faut nga xam li ko war a mën a indi malaise li ko mën a indi bari na intoxication mën na ko indi feebar bu yàgg ci yaram mën na ko indi coup de chaleur mën na ko indi maanaam ñi nga xam ne dañuy nekk ci waañ bi di togg yàgg fa yàgg fa yàgg fa tàngoor googu jàppaleen mën na leen indil malaise ñu jékki-jékki sonn sa rythme cardiaque wàññeeku ñu jékki bëgg a wéeru walla affaire yu ñu mel noonu ñooñu tamit da nga war a am nooy comporté ak ñooñu maanaam li ñu santaane ci cas yooyu noonu boo ko amee mooy nit ki danga koy jege ba pare laaj ko ndax dafa mës am feebar bu fekkee mësta am feebar wala mës na am feebar du moins nga laaj ko ndax da day jël ay garab bu dee dee jël garab nga dimbali ko bu fekkee garabam yaa ngi nga dimbali ko mu jël garab yooyu noonu bu fekkee dafa la ne man daal lii mësuma dal xaw ma lan moo may dal maanaam teg ko position bi nga xamante ne moom position boobu lay gën a nekkee si jàmm maanaam yow bu ko imposer sa position ne ndax piit baax na position bi baax na bu ne lee baax na nga xam ne yëgalul métti bu bëri nga bàyyi ko ci position boobu noonu. léegi yow lan ma war a doon sa réaction mooy yow da nga war a woo sapeur yi di nga jot ka nga xamante ne dina la mën a conseiller bu fekkee médecin mu ngi si place si environnement yi nga woo médecin mu ñëw man kii bi mu koy fekk fii nii di fekk naa fi déformation kanam gi commencé woon na déformé wala benn loxo bi commencé woon na ko paralysé wala détaillé dem loolu day dimbali médecin bi pour prise en charge bi parce que malaise mun na nit ki mën na doon tëdd daanu ci malaise nga bañ koo wax affaire yooyu noonu fekk début AVC la wala yu demee noonu moo tax yenn lépp loo gis ci comportement moom mooy gémmeen gu commencé fa maanaam kanam gu commencé moy wala loxo boo xamante ne maanaam dafa commencé paralysé wala sueur abondante wala yeddaay dem noonu maanaam détail yooyu yëpp da nga koy wax médecin bi wala sapeur bi ñëw di ko jël si parce que loolu da koy dimbali mooy malaise bi mu leen wax nii donc malaise du dara sensation pénible la boo xamante ne day jàll c'est passagère te nit ki koy éprouver le plus souvent moom du xam lan moo ko lan moo ko teg loolu noonu kon donc loolu dalal nit ki la mu toog ci position ba nga xamante ne moo gën a jekk ci moom nga bàyyi ko foofu nga woo secouriste yi maanaam alerte précoce maanaam sapeur yi moom wala kuraaru euh, ñu leen jege ñoo ñi nga xam ne dañuy wàllu dañuy yëngu ci wàllu woowu noonu maanaam seen alerte maanaam seen woote waroo ñoo jéem dara ba mu ëpp leen loxo ngay jéem a woo sapeur wala détail demee noonu maanaam dara bu xewee rek boo ci amul dara moo tax ma leen ma leen di wax ci njëlbeen bi maanaam du formation sensibilisation parce que ku mel ni man tey man boo ma doon former sapeur lu mu dee dee di nga def ak man 4 weer kon tey tey tey mënuma leen former ci maanaam wàllum secourisme maanaam du ngeen ay secourisme yi maanaam ay gestes yoo xamante ne de premier secours yoo nga xamante ne da leen di njëriñ ëllëg loolu laa leen mën a jox danga nga de kon buñ paree ci malaise bi dañuy dem jàll ci nit ku xëm ñun moom la ñu waxee inconscience maanaam nit dina jékki-jékki xëm boobu noonu li ko mën a indi bari na nit mën na daanu xëm mën nay dox dox jékki-jékki daanu xëm wala oto jóge ci oto daanu xëm wala mu jóge ci saret daanu xëm wala ñu dóor ko wala mu doon dóoru sama mbokku Baay Faal yi daanu xëm loolu la ñuy wax inconscience inconscience tamit dafa passager mais tamit dafa am ay risque maanaam fi may attire seen attention ci nit ku xëm mooy position bi nga xamante ne waru leen ko ko bàyyee mukk mukk mukk mukk sans surveillance mooy ngeen bàyyi ko mu tëddee jaaxaan tëddee jaaxaan moom dafa baaxul fenn maanaam li ñuy wax ne nit ku xam day perdre tonicité la maanaam yaramam bi yëpp day bàyyi boo gisee boo yëkkatee loxo bi sax boo ko bàyyee day waat ci kanamam léegi làmmiñ nga xam ne moom ci jëm boppam dafa bokk ci muscle yi moom lañuy bañ mu dugg ci biir put bi toog fa fatt ko bu boobaa dootoo amati nit ku xam mais da am nit koo xamante ne nooyeetul sax da koy indil arrêt cardiaque maanaam nit ku xam kenn du ko bàyyi mu jaaxaar moo tax ñu naan la danga koy def sur le côté mooy position bi nga xamante ni presque ñëpp xam nañ ko mooy position latérale de sécurité bu ñu génnee ci biti bu ñuy def euh, démonstration yi dinaa leen wanaale position Euh, latérale de sécurité ni ñu koy defee léegi ñëwaat ci inconscience inconscience nooy xamee ni nit ki dafa inconscient mooy maanaam boo ko posé ay questions yu simple du la faale boo ko nee est-ce que yaa ngi may dégg du la faale mais dina nooy maanaam inconscient na mais mu ngi nooy maanaam àndut ak sagoom dafa xëm léegi kooku ñun habitude bi ñu amoon bi ñuy nekk xale wala habitude mooy nit ku xam danga koy koy tapoter ko yooyu noonu jël ndox xëpp ko waaw loolu daan nañ ko def muy réussir mais xam nga en matière de secourisme li ñuy wax maanaam yow waroo def loo xamante ne jàngaluñ la ko parce que secouriste bu defee la nga xamante ne jàngaluñ lu mu ko ci fekk rek moo ko teg boppam mais inconscience ñun niñ koy traité maanaam nit ku xam mooy da ngay jéem a identifier carrément ndax inconscience bi mu ngi fa ba pare mu ngi inconscient nga xool ndax mu ngi nooy bu fekkee mu ngi nooy ah nga xam ne ah ki ma jàkkaarlool nii kii dafa inconscient mu ngi nooy li gën ci moom mooy def ko position latérale de sécurité maanaam du ma leen diggal mooy comme gars yi ne bu leen neex nag mun ngeen ko def mais li ngeen di sooraale mooy jaaxaanaay bi mooy li mu leen waxoon sànq muscle mooy làmmiñ muscle la te nit ku jaa ku xëm wala ku àndut ak sagoom day day perdre tonicité yaramam bi yëpp mënul contrôler daraam même wannaasu sax du ko mën maanaam moom la ñuy wax ne da ngay perdre tonicité muscle bi léegi loolu pour bañ làmmiñ bi nga bàyyi ko jaaxaanaay làmmiñ bi jàll ci biir mu won na làmmiñam ni ñu koy waxee moo tax doo ko bàyyi mu tëddee jaaxaan danga koy mettre sur le côté xaw a génnee ubbi gémmiñ bi tuuti muy mën di continuer nooyi nga woo nga woo sapeur yi ñu ñëw loolu bu weesoo mun nañ jël beneen thème bu di mel ni nit ki da doon dagg soble wala da doon xar matt amee ci accident am hémorragie maanaam hémorragie maanaam deret bi génn ci yaram hémorragie yi nag bëri na façon am na interne am na externe am na extériorisé mais bi cas bi nga xamante ne moo gën a euh, moo gën a neex a mooy hémorragie yi externe maanaam nit ki moom dangay ngay jaaxal moom gis deret gi di say di génn interne mooy nit ki dina taxaw nii jàkkaarloo yow maanaam sidit yi dawal deret yi fi deret bi jaar dagg na ci biir mais yow mënoo ko xam mais am na ay signes yi nga xam ne boo ko xoolee da ngay xam ne kii dafa amee hémorragie interne yi extériorisée nag mooy hémorragie deret bi nga xam ne day génn ci orifice naturel yi mooy lu jëm ci wàllum bët wàllum bakkan wàllum gémmiñ nopp ak ya ca des mooy hémorragie externe mais nag dañuy jël cas bi gën a fréquent mooy hémorragie yi externe maanaam nit ki da doon togg wala da doon def bi amee ci accident deret bi commencé génn loolu li ñu lay recommander foofu mooy d'abord il faut nga constater hémorragie bi xool ndax hémorragie bi ndax saignement la wala hémorragie parce que saignement bokkut ak hémorragie saignement mooy maanaam nga dagg tuuti deret bi génn tuuti loolu garaaw yow moom sa jëm bopp mun nga ko gérer sa bopp hémorragie mooy. li plus souvent mooy bu bi nu ko maanaam sidit bu mag bu daggee deret bu génn génn bu ba bu bëri boobu noonu boobu la ñuy gën a ragal parce que boobu noonu da nga ko war a jël teel a jël en charge parce que sinon mën na indil waa ji beneen complication complication dafa mel ni moto pompe buy ŋàcc ndox maanaam xol bi mooy moto pompe bi n'est-ce pas yi ŋàcc ndox bi moom mooy sidit yi nekk ci yaram bi maanaam moto pompe buy ŋàcc ndox ŋàcc ndox ŋàcc ndox ba amatul ndox bu mu ngàcc lu muy def day fay maanaam day désamorcé wu xool nag noonu la mel moo tax nit kuy perte deretam da nga war a gaaw arrêté loolu loolu mooy priorité bi mooy arrêté deret boobu noonu di wal léegi nag pour arrêté deret googu noonu dafa am ay système wala ay technique techniques yi nag bëri na mais ci bi ci gën a fréquent mooy ab bi ci gën a yomb mooy def compression directe xam nga deret am na yu muy àndal ñii ñu ngi koy sóoraale maanaam yow sa jëm bopp sa loxo bu daggee war nga sóoraale ne da ngay sóoraale ni deretam waru laal sa deret mais réflexe la war a doon mbuus du leen du leen sori foofu noonu bu dee ñun secouriste gant la ñuy sol danga leen gis ñuy sol gant mais comme ay si wàllu grand événement yi lay doon gars yi dañuy faral di yor ay gants mais mbuus maanaam nga sol ko wala moom si jëm boppam bu fekkee dafa conscient mu ngeex sagoom nga ne ko ah defal compression direct fii naaj si yow maanaam compression direct mooy dangay bës fii naaj si yow bës ko mu am benn pression bi ba nga xam ne deret bi dootul mën a ñëw loolu bu fekkee jàllut dañ lay recommander nga def lan pansement compressif e na am ku dem uti ji compresse bu fekkee compresse am fa mouchoir à mën a servir de compresse parce que urgence nga nekk mooy mouchoir à yi jël ko tax ko fii naaj ba pare nga jël bande boo amul bande mën nga ut morso bu set ak li ngay def contact tamit ak ak ak pele bi tamit dafa war a set moom la ñuy wax lu sëriñ nga def pansement compressif pansement compressif bi day xaw a dëgër maanaam day remplacer pression bi loxo bi waroon am ci ci euh, fii naaj pansement compressif bi loolu lay loolu lay remplacer maanaam nga def sa pansement compressif bu fekkee pansement compressif bi tamit doxul nga ajouté waat beneen pansement sinon boo mënul ajouté beneen pansement nga nga nga nga def sa pansement euh, nga def compression compression directive mooy nga appuyer ko mooy li ñuy wax j'appuie sa comprime et j'allonge maanaam boo ko bësee fii nàcc ba pare nga jéem a tëral kii nàcc bu fekkee mu nekk sago nga jéem ko tëral nga ne ko wala nga ko jéemal tàlleeku naan lu tax loolu dañuy bañ maanaam après ay migraine fekk ci nit ki mën na taxaw nga comprimé mu jékki-jékki rek daanu lu tax parce que deret bi eggatul ci bopp bi te nee nañ le cerveau est l'organe le plus sensible au manque d'oxygène te deret boobu noonu nag moom mooy indi oxygène bi ci cerveau bi kon bopp bi tout le temps dafa war di am deret donc tëral bi nga koy tëral noonu da koy dimbali pour lan bopp bi mën a am deret bu suffisant de ce fait waa ji du du gaaw a dem wala du gaaw a xam tëral ko comprimé foofu noonu te compression boobu tànk waroo ko dindi tànk secouriste yi ñoo ñëwuñu kon donc li gënoon mooy moom ci jëm boppam nga wax ko mu comprimeel boppam bu comprimeelee boppam yow nga woote wala ñi nekk ci alentour yi woo sapeurs yi wala les services concernés ñu ñëw ñu wàllu si ko maanaam cas boobu mooy mooy kaawu hémorragie externe léegi loolu bu weesoo mën nañ jël tamit kaa mooy ñi nga xam ne dañuy crise fot fot waaw fot waaw <laughs> fot waaw waaw fot tamit am na solo gars waaw wax nga dëgg <laughs> waaw parce que xam nga sama mbokku saalum saalum yi wala ñeneen yi mën nañ dem màggal ba wala ñu wàññi dog bi ñu bëgg laxas dog bi noonu jàllale ko noonu mu lemmatu ko ci biir nga fot moom la ñuy wax obstruction ñun moom la ñuy wax obstruction waaye nag fot dafa am ñaar am na ba ñuy wax obstruction totale maanaam nit ki day fot carrément ak am na boo xamante ne obstruction waa ji day fot bi du du demee noonu maana dina mën a nooy wala dina mën a wax wala dina mën a sëqat léegi nag fot moom. na nga koy xàmmee surtout ba nga xam ne ñu wax total noo koy xàmmee mooy nit ki da doon lekk le plus souvent da doon lekk mu fot wala bu dee xale la da doon am lu mu doon lu mu doon fooyee ay jaanu tàngal yu mag yi wala yenn affaire jouet yi mu dugal ko ci biir gémmiñ bi mu jàll mu fot léegi loolu yow en tant que euh, premier intervenant boo ci yemee la nga la war a doon sa réflexe mooy maanaam d'abord il faut que nga constater ban façon faute la ndax bii fot totale la wala bii parcelle la léegi bu ci nekk nag dafa am ay signam bu dee fot bi nooy xamee ne faute bi dafa totale nit ki bu doon lekk da doon lekk wala da doon foo am lu jàll ci put bi da koy téye day téye put bi moom d'abord ba pare ubbi gémmiñ gi ubbi bët yi di jéem a nooyi wala di jéem a sëqat te du nooy du mën a wax boo ko nee day fot nii la lay def ci bëtam yi xujj bëtam yi naa la nii damaa fot waaw mais du la ko wax daal dala koy def du geste de la tête ne fot carrément mais du ko mën a wax kooku da ngay xam ne ah kii obstruction totale la am maanaam kii fotam dafa total li nga war a ragal foofu noonu en tant que premier intervenant li nga war a sóoraale foofu mooy ñàkk nooy bi muy ñàkk nooyi te ñàkk nooy xam nga fu mu leen jëmee fu mu leen yóbbu da xëm ba pare mun nga jóge ci xëm dem ci lan arrêt cardiaque kon gis ngeen chaîne la kon li nga war a lijjanti foofu lu njëkk mooy lan ah nooy bi parce que obstruction bi dafa total faute bi dafa total léegi nag loolu dafa am ay gestes yoo xamante ne da nga ko war a def mooy lan cinq claques dans le doo ak lan méthode Emlist loolu bu ñu génnee ci biti wala ñu def ko léegi ñu def ñu def ko léegi ah na ab njaayeen ñëw ma ma ma essayé ko loolu waaw muy noonu léegi yow njaayeen la Diouf laa sant séeréer ah Diouf ah. kon baax na la ah. ñu demee ah ñun ñëpp ñun ñëpp ay élément ah, commando la ñu élément la troisième pompe ñu commandé tiré M203. troisième kodo waaw léegi moom daal. fot du noonu. waaw waaw dañ jàpp ne da doon lekk fot n'est-ce pas léegi da ngay def geste bi jàppal put bi ubbi gémmiñ bi kulli bët yi sëggal da ngay xaw a sëgg lu taxaw nag da ngay xaw a sëgg parce que nii nii moo lay gën a yomb nga siggi taxaw du noonu non garaaw garaaw baax dama koy yenn saa yi koy fàttali waaw defaaleel geste yi ñaari loxo yëpp waaw sëñ bi da ngay fot ah da nga fay lan moo war a doon sa réaction maanaam instant yi nga koy posé question yi yaa ngi def li ñuy wax constaté ban façon obstruction la ndax total la wala partielle yaa ngi nooyi kon affaire bi dafa war a gaaw wax ji sax warutul bëri yaa ngi nooy mun a la déedéet kon lan la waaw acca ñëwal ñëw nga ma téel nga ma sa première réaction mooy lan yow sa jëm bopp téye ko parce que ñàkk nooy wax naa leen ko fu muy yóbbu nit ci lan la lay yóbbu ci ci ci da ngay perdre connaissance parce que lan nooyeetoo cerveau bi amatul oxygène da ngay daanu léegi yow da ngay anticiper daanoom googu noonu mooy lan nga jéem ko bloquer nii boole loxom bi moom day sëgg moom bu fekkoon dafa toog ci table dina jug mais dina sëgg li ngay def mooy lan cinq claques rigoureuses dans le dos maanaam dóor yi du doon dóoru boo ko yërëmee rek doo ko dimbali da koy ngàdd carrément lii nag mooy ngàdd du nii de du nii lii la lii lii jàpp ko dóor benn ñaar ñett ñeent ba juróom bu ko génnewee baax na bu ko nga def lan nga def méthode Emilius mais li ci ëpp boo dóoree rek day génn dóor bi ngay dóor lan moo tax lay dóor maanaam pour créer un effet de tout moom la ñuy un effet de tout maanaam boo jëlee bouteille al ma benn bouteille bu jeex nan nan na gis ngeen ko nii maanaam dóor bi ngay dóor lii nga ci wut lii lii nga ci wut maanaam ngàdd bi ngay ngàdd noonu effet boobu lay def ci biir ci biir cage thoracique bi maanaam dóor bi ngay dóor effet bii lay def lii nga ci wut mooy effet de effet de tout nest loolu boo ko amul nga def lan méthode Heimlich maanaam sa baaraam bii bii danga koy teg ci jumbax bi nii tegu ci jumbax bi ba pare nga tëj mu fekk ko ci léegi nag yow da ngay bës mu jëm ci biir ci kaw mais nag mouvement synchronisé lay doon maanaam day dugg yéeg yéeg léegi loolu noonu pour lan rechercher en effet de piston boo bokkut ak tout piston mooy maanaam maanaam genre genre muucu day doon day lay doon quoi maanaam da ngay jéem ngelaw gi des ci biir moom ngay jéem contrer ak corps étranger bi bi fot si ci put bi mooy effet boobu noonu mais le plus souvent moom boo defee cinq claques yi nga def ko normalement si diggante omoplate yi mooy yax yi yax yax yi nii yii yii foofu nga koy dóor te doo ko yërëm yii la lii mooy dóor talon main bi lii da nga koy ngàdd carrément te fàtte ko bu koo fàtte téye dóor dóor dóor en général boo defee benn ñaar ñett ñetteel bi day génn mooy effet de effet de tout boobu noonu nga mettre au nga jël loolu dugal ko ci sachet teg nga woo secours yi waaw dog bi boo génnee am deret maanaam loolu day laajte avis avis médical maanaam su sapeur yi bu ñëwee walla médecin bu ñëwee da nga koy naan ah dog bi ba mu génnee ànd naag deret du noonu loolu yëpp da ngay renseigner docteur bi pour bu prise en bi gën a gën a mën a gën a yomb du noonu léegi li mu leen doon wax mooy claque yi bu inefficace da ngay def méthode Emilus mooy ci biir biir bi def def ba muy juróom moom it bu efficaceul tamit nga commencé waat claque yi ba nit ki di tombe naa dans l'inconscience bu duggee duggee ci inconscience loolu beneen bu fekkee obstruction bi nag parcelle la ba nga koy constater nee nga ko sëñ bi mun nga nooy defal geste bi mun nga nooy mun defal neel waaw waaw mais mu ngi nooy waaw mais difficilement yaa ngi dégg ay bruits anormaux mu ngi nooy mais loolu da ngay da ngay arrêter manœuvre yi doo doo doo doo tenter benn manœuvre parce que lan la ñuy ragal foofu noonu mu jógee ci parcelle dem ci total kon da nga naan ko xoolal position bi gën ci yow nga toog ci position boobu noonu nga encouragé ko pour mu sëqat bu mu nee sëqat mu sëqat mais yow doo def benn mën a foofu doo dóor doo tàpp doo bës da ngeen bu loolu weesoo maanaam jigéen ñi nga xamante ne dañoo toll seeni weer ah, bu bu ko doo ko jox dara doo ko jox ndox mu naan du jéem a jàllale kooku da koy toog xaar sapeur yi ñëw jël si ko nga jéem koo euh, nu mu tuddati euh, kii mu mu euh, nu mu tuddati jéem koo pour mu sëqat du noonu. fekkee dafa fekkee da nga ko dóor. waaw affaire bi génn. xam diggante boobu nit bu fotee day ñaq tooy xet affaire bi bu génnee. waaw xam ne génn na quoi. gis loolu loolu bi la. waaw waaw bi la. loolu total bi la pare. waaw waaw comme tu déshydraté ndox la may ma ndox mun nga ko waaw bu paree. waaw bu la neex nga may ko. ndox mun na waaw mais bu parewul. waaw ah, bu am doo ko may ndox. loolu li nga war a lijjanti mooy na nooy. mooy manœuvre de désop désobstruction bi nga war a def. du noonu. mooy lan cinq claques ak méthode Émilis. lu fekkee nag da nga yem ci nit koo xamante ne dafa am biir comprendre góor am na góor yoo xam ne dañuy yaatu dañuy am biir munoo ko centrer pour def méthode Emilis bi munoo ko centrer dangay def compression thoracique bu boobaa da ngay yéeg tuuti ci dënn bi moom ak jigéen bu nekk ci weeram maanaam jigéen bu ba nga xam ne kii mu ngi ci sixième mois wala neuvième mois da gis carrément biir bi rëy kon kooku doo def compression abdominale bu boobaa compression thoracique ngay def mais li ci ëm ëpp solo ci loolu noonu mooy lan il faut nga discerner obstruction yi maanaam kii faute totale la wala fot à moitié la loolu moo ci ëpp solo boo xamee ne total la aussitôt après da ngay jàll ci lan manœuvre de désobstruction yi mooy lan téye ko position bi mu nekk cinq claques vigoureuses yi boo ko doo ko yërëm ngàdd kay ngay def ngàdd bu baax tiib tiib tiib bu génnee baax na bu génnut nga bàyyi loolu jàll ci ci biir da day léegi bu dee parcelle bi la bu dee parcelle bi la mooy dañ la na da ngay encourager bi mu toog ak mu tuuse nga bàyyi ko position bi mu gën a sentir sentir boppam hmm? baax na rek hmm. waaw total bi total bi mooy démonstration yi mooy des. pour nga wax leen total bi mooy ki nga xam ne mënatula wax communication geste. lay def non total kay moom Sénégal yëpp xam nañ kuy total ku jàngul total daara ja lañ jaar. ah ñi ñu jóge daara war nañ xam luy total. waaye total mooy lépp nga xamante ni mooy mënatula. option total maanaam ka nga xamante ne mënatul nooy boo ko laajtee da nga fot mu ne la waaw est que yaa ngi nooy mu la. en tout cas daal looloo ci ëpp solo te leneen tamit euh, waa ji mu ngi koy wax suñu jëwriñ si njëlbeen bi maanaam maanaam accident yi nga xamante ne courant moo ko waral lii gars yi di def njumte bi ñuy def mooy nit ki accident bi jàpp na ko daanu na rek yow nga ñëw daw ci rek ñëw jàpp ci nit ki ne da nga koy sauver déedéet fi ngay tàmbalee mooy xool ci alentour bi mooy protection d'abord xool kii courant bi li ko jàpp fan la jógee ah nii la jógee nga daw foofu couper loolu ba pare doog a ñëw songu nit ki doog a engagé nit ki xoox lan moo ko dal. léegi yow boo ko ñëwee da ngay xool ndax nit ki mu ngi nooy wala nooyit mu ngi nooy baax na mais àndut ak sagom bu àndut ak sagom mooy position bi mu leen waxoon sànq mooy sur le côté position latérale de sécurité. mu xam naa ne jàngal leen ko tey mu tax ngeen maîtriser ko parce que dafa bëri ay affaires yu sew ci ne na nit ki daal na tëddee wet mhm. nit ku xam kenn ko bàyyi mu tëddee njaaxanaay na tëddee wet ba pare mu am surveillance ndax xool ndax mu ngi continuer nooy wala continuer wut nooyi ba pare nag nga alerte alerte précoce alerte bi day gaaw yow booy def activité yooyu noonu. ñaari côté ñaari côté yëpp baax côté boo ko tëddal baax na. bu mu waaw côté boo ko tëddal baax na ba mu des jaaxaan ak ak dëpp. leer na ko baax na. waaw doo ko dem. mooy lan da koy dippi mooy li ñuy wax retournement. jëwriñ da ngay ñëw nag. retourné ko. retourné ko. xool maanaam li ma def sànq moom la ñu wax xool ndax mu ngi nooyi mu ngi. Euh, nu mu tuddal mu ngi ak mooy apprécier la conscience li des mooy xool ndax mu ngi mu ngi nooy foo bëggee xam nag mu ngi nooy bu fekkee man secourisme professionnel man soxlawu ma dara mën naa ko xool nii xool rek mën naa xam que mu ngi nooy nest mais yéen dañ leen di recommander maanaam nga def li ñuy wax jooy maanaam sëgg ci moom déglu teg sa nopp bi ba pare di dégluwaale déglu ndax mu ngi def maanaam kuy nooy di nga dégg ni muy ni muy ni muy def ba pare sa bët yi tamit nga xool cage bi xool dënn bi ndax mu ngi jug a ka mu ngi jug a ka wàcc bu boobaa di nga xam ne ah kii àndut ak sagom waaye mu ngi mu ngi nooy aussitôt après da nga koy def li ñuy wax position latérale de sécurité mooy PLS bu fekkee nag PLS bi sur le côté. bi tànk bi lem bi nga koy lem nii mooy pour bloquer ko la parce que wax naa leen ko si njëlbeen maanaam nit ku xëm day perdre tonicité musculaire bi maanaam du dootul téye dara si yaramam. bu munoo koo teg si côté ba mu teg maanaam tànk bi ngay lem nii pour bloquer ko la bu fekkee nit mën na fi taxaw tamit bloquer ko bopp bi mu ubbi ko tuuti ubbi gémmiñ gi n'est-ce ba pare continuer surveillance bi le temps li ngay def manœuvre bi nga koy tàmbale nit ñi woote nañ sapeur maanaam action bi dafa war a combiner kii buy def pexe bi fii pour maintenir ko en vie keneen ki na jël téléphone maanaam woo sapeur. waaw numéro sapeur ñaata la. numéro lu am solo la. 18 la doo amul crédit ñàkk crédit maanaam numéro vert la am doo fay dara 18 la mu ngi noonu. mu ngi noonu boo wootee 18. waaw lañuy wax alerte loolu tamit dafa am solo mooy sëñ bi allo waa mu a la waaw li ëpp solo maanaam da ko war a wax sa sa tur maanaam maa ngi tudd Moussa Ndiaye maa ngi lay wooyee si numéro bii 77 621 13 87. te boo nekkee jumaay Touba boo defee 18. waaw. chauffeur daf may wuyu. waaw te dina ñëw. dina ñëw. Ah. waaw. Ah, waaw bu bu fekkee. 18 rek kese ngay def 18 ak 8. waaw. dañuy ñëw. ah mu ngi noonu. Ah. waaw oto bi gën a jege moom lañuy yabal mu ñëw foofu mais yenn saa problème bi mooy des fois damay dëgg gars yi dañu ko tooñee maanaam médecin après à la mort loolu xam nga damay jaarale si occasion bi rek jàllale ko. maanaam Sénégal ñun dañu amul culture militaire amuñu culture boobu noonu xam nga ay magum jëmm doo leen dugal ci biir camp sapeur jox leen carburant nga ne leen woo leen intervention ñu naan non tey man dama xaw a soj tey sama yaram neexul duma dem kon gars bu ñu demul rek am na lu war soit dañu nekk ci yoon bi embouteillage bi xat wala ñu ne nekk ci yeneen intervention parce que lii xewandoo biir Dakar dafa bëri da ngeen maanaam fii am na ku Jakarta mbëkk fii fële maanaam c'est que nit seen c'est la nature humaine c'est normal yow boo nekkee si cas rek da yaakaar ne yow kese yaa fi ne alors say say morom ñeneen tamit ñu ngi ci kaa ambulance yi foofu lañ dem gis ngeen de léegi lu weesu loolu maanaam bu lu loolu amee maanaam dañuy ñëwaat si alerte bi mu leen doon wax na alerte bi bon boo joxe sa tur joxe sa numéro da ngay joxe adresse exacte te booy joxe adresse exacte da ngay jël repère ba nga xamante ne dafa fixe boo leen par exemple. maa ngi ci camion bu mag bu zone bi ñoom ñu départ ñëw camion bi départ dem ñoom dañuy réer kon tamit il faut nga préciser fi nga ne maa ngi Dakar euh, maanaam maanaam maa ngi Touba ci wetu jumaa bi mooy porte bi jaakaarloo boutique bu mag bi walla bitigu Tigo bi walla genre yu demee noonu maanaam affaire bi dafa war a précis de ce fait que ñoom sapeurs yi dañuy am lu leer bu ñëw dañuy ñëw directement ci ci intervention bi nga laaj ko. tamit est-ce que mën naa couper bu loolu avant loolu sax nga koy laaj est-ce que mën naa couper nee ko nga jox ko nombre de victimes yi nga am na ko ah fii ñaari nit ñoo fi daanu walla benn nit la de ce fait ñoom boo ko nee fukki nit la moom dina xam ne kat ah fukki nit war naa mën a yóbbu cinq ambulance mais boo ko nee am na lu xew fii rek yem foofu moom lu xam ñaata ambulance la indi maanaam li ngay wax da nga koy détaillé jël sa temps bañ afole affolé cas bi lu mu critique da ngay jël sa temps loolu mooy am solo maanaam dangay ngay posé ah jëwriñ man maa ngi lay wooyee si turu diw maa man la diw maa ngi lay wooyee si numéro bii man de maa ngi fii maanaam ci Mbàkke ci buntu agence Tigo bi xam nga loolu leer na ma ngi jàkkaarloo nit koo xam ne dafa tëdd suba ba ngoon mu ngi fii tëdd kenn faaloo ko xool naa ko nag mu ngi nooy mais àndut ak sagom lan laa war a def àndanaat naa ngeen di ñëw xam nga loolu leer na moom dina na ah def ko ci wet bi en attendant sapeur yi ñëw mun naa couper mun na la couper nga couper. Hmm? loolu leer na ah. nit bu maanaam nit bu am ku am poids mooy obèse ak nit ku tuuti waaw ñoo bokk côté bu ñuy tëddee léegi lan ngay ragal maanaam wax nga lu am solo maanaam ku am. hémorragie côté gauche lu ñuy ragal foofu noonu maanaam lu ñuy bañ foofu mooy poids bi yëpp reposer si si xol bi loolu tamit ça peut s'expliquer waaw bu dee day naaj côté bi maanaam bu fekkee ñun côté bi nga xamante ne côté boobu la atteint côté boobu noonu nga koy nga koy defee sur le côté comprendre nga de baax na baax na léegi jarul woon bu fekkee question waaw bu yi la waaw nga xam ne lépp la dee soutien layor yor maanaam pour préserver maanaam ay kiyam maanaam suturaal jigéen maanaam euh, jigéen bu nekkee ci wetam mën nga wax moroomu jigéenam mu ñëw tekkil ko soutien mu teg dugal loxoom teggil ko soutien mais bu fekkee jigéen new fa yow góor nga da nga naan ko soxna si mën na la est-ce que mën naa la teggil sa soutien yi ci ginnaaw bu la nee waaw nga wax ko ñëpp dégg ko ñu xam sa loxo boobu di dugg duggul demul fenn lu dul dem tekki tekki soutien du noonu de waay dégguma waaw bu amee ah d'accord inconsciente du mën a wax tekkil ma waaw mooy inconsciente gis nga li ñuy wax ñaaw moo gën dee maanaam na lépp ñaaw foofu noonu moom mu dund waaye defal defal rek loolu la waaw kon baax na ah waaw waaw màggal gi Euh, pour aar euh, ñiy dem euh, Touba ñu mën a dem ci jàmm ñëw ci jàmm mais xam ngeen ni ñu si bari demuñu pour màggal dañuy dem pour def jëf ju bon léegi nag jëf ju bon jooju policier bi mën na ci yem que yéen mën ngeen ci yem yéen ku ci yem hmm? jàpp leen ngeen jox ko police parce que ndaw police yaa ngi fa ku ci jàpp sàcc wala nga nga jàpp keneen kuy def leen naka su dul noonu jox leen ko policier bu leen ko jéem a régler seen bopp bu leen dóor bu leen monote parce que mission yooyu police moo koy def wala gendarmerie soo ko defee dara mën na la ci fekk soo dóoree bakkanam rox la ci fekk te loolu jaru ko ku si jàpp sàcc na nga ko na nga benn policier parce que màggal gi foo tourné di nga gis policier am na ay éléments en civil am na ay éléments en tenue loolu laa amoon lu ma leen di sensibiliser euh, ci mbirum sécurité bi leneen li dama seetlu ne màggal bu nekk élément GMI li ñuy am problème ak euh, waa daayira yi day bari trop trop trop trop te loolu mën na bañ a ñàkk waaw ñun defar moo ñu tax a jóg defar rek ñun moom defar moo ñu tax a jóg demuñu pour yàq policier bi su nee su leen def leen lii def leen ko yéen tamit su ngeen amee lenn lu ngeen di wax policier bi wax leen ko ko ku ci am problème na woo policier bi ne ko est-ce que mën naa def lii ak lii. parce que service bi ma mujjee dem Touba dem naa benn porte bi porte bi ndaw bi day nekk côté cimetière yi ñoom dañoo déborder ñu wooñu ñu ñëw régler situation bi c'est comme ça ku ci am problème wool benn policier ñun dinañ ñëw nu mu gën a gaawee ñu régler ko parce que nekkuñu foofu pour yàq dañu fa nekk pour liggéey wala ñuy xeex wala ñuy dóorante wala ñuy gaañ nit ñi loolu du suñ liggéey waaw dañuy aar nit ñi ak seeni matériel loolu mooy suñu liggéey beneen bi sooy seet euh, kilifa yu bari yéen leen di xam ñun mënuñu leen xàmmee boobu tam da ngeen ñu si dimbali maanaam kilifa bu ñëw ngeen ñu ah kii diw la loolu day yombal suñu liggéey bu baax a baax waaw loolu moom su ngeen ñu ci mënee jàppale dina baax trop trop trop maanaam lu ngeen gis loo xam ni police moo ko war a régler wala gendarmerie wu jël woo leen policier bi moom am na numéro bu muy woote ñu ñëw intervention rapidement commissariat Touba baa ngi foofu après coup naa joxe numéro commandant bi. ak numéro commandant gémi bi def màggal bi naa naa joxe seen numéro ku ci am tolof tolof rek na woote ci ñaari numéro yooyu pour ñu mën koo régler euh, xam naa kàddu yi gàtt na trop waaye loolu laa amoon euh, lu may wax waaw ku ci am nag benn question waaw nga mën nga ko poser waaw waaw li nga def moom lu baax la noonu rek nga war a dogalee maanaam comme li ma doon wax sànk rek dem di fajal sa bopp moo baaxul nga dem dóor wala nga jàpp takk mënate loolu moo baaxul maanaam am na ñoo xam ne loolu mooy seen seen mission gendarme yi wala policier yi li nga def noonu noonu la parce que kooku bon da doon mbubboo turu policier rek waaye du policier waaw xam naa day bari Tuubaa trop lu ngeen soupçonné daal n'hésitez pas euh, waxleen ñu ko ñun dinañ def euh, lu ci war waaw waaw du yoon loolu jàppal ba mu dëgër rek jàppal ba mu dëgër parce que soo dóoree mu gaañu yoon mën na la teg loxo déedéet waroo dóor waroo rëq déedéet war mënul nekk jàpp jàppal nga jox ñu ñu yóbbu commissariat ñoom ñu def seen liggéey waaw ñoom ñu def ñoom wool police kay mu jàpp yóbbu parce que foo tourné di nga gis policier màggal gi moom policier dinañ bari bari waaye boo xam ni foo tourné di nga gis benn police sawet déedéet non non waroo dóor waroo dóor waroo saaga waroo taq waroo def loolu liggéeyu police la polis moo koy def waaw. question bi moom yaakaar naa ñun waaxin ma yi ñépp dundal ko laaj bi may laaj nii jumaa yi ngay nekk ci rang gi di julli si di siyaare ji moo xam góor moo xam jigéen benn waaye bokk yow rang tafu la. nga jàpp ko jàpp kim sàcc gis ko ak lim sàcc nga ne nga ne waa ji kaa ñu yóbbu la yaa nga nee wala kaa ñu yóbbu la commissariat commissariat fa ngay téye sàcc ya mu man man damay siyaare ji loolu lay laaj plaignant siyaare moom jumaa ji heure siyaare plaignant mënu fa kon sàcc bi ñu def ak ñoom ñu def ñoom te police mi léeg du ñëpp de ndax ñaari yi moom jàpp naa ne ñu fay ñëw moom ñu fay ñëw ay jàmbaar lañ fay ñëw moom ñu nangu ñu ngi fay ñëw ñaari at yii bu njëkkoon nag da ngay woo policier na ko kee def na nangam mu la loolu sa liggéey demal lu nangu ko tamit jafe-jafe la ñëpp dund na loolu ci jumaa ji bon léeg-léeg nga jàpp léeg-léeg buru bi day bari nit jàpp kenn ñu yóbbu ko commissariat mais problème bi mooy du am plaignant kenn nit du ñëw déclaré wu ne kii moom ma sàcc kooku tamit yoon mayu la nga ko fay téye yoon mayu la nga ko fay téye police moom mbirum yoon rek moo fay dox su amul plaignant dañuy obligé kooku ñu bàyyi ko mu dem ñibbi mais nag su ko suñ ko fa yóbboo nit ñëw ne man la doon sàcc dañ koy téye léeg nag suñ ko xoolee mu xaw indi indice ñu téye ko fa pour vérification d' identité yooyu yëpp day am pour téye wala ñu téye ko fa màggal gi di waaj a jeex yooyu yëpp day am waaw. waaw. ah mais warul warul kooku warul la dóor parce waaw waaw parce que soo ne ko agent police eh, su ne agent police soo ne ko su naan agent police laa bu jigéen nga ne ko jigéen ñi fële la ñuy ziyaare ah, góor la ah d'accord dóor daal non dóor moom jàngaluñu pour ñuy dóore ñun waruñu dóore waaw loolu moom na leer waaw ñun moom waruñu dóore ku ko ku dóore tamit santuñu la ko waaw. Ah. Ha? loolu loolu dinañ ci jël ay matuwaay bu baax sax loolu dinañ ci jël ay matuwaay bu baax sànq tudd naa ko nee naa ko la collaboration collaboration bi dafa baax ñu ak yéen parce que man ma koy def man maa ngi gémi Diourbel mais li may dem Touba bari na service trop baa mbay laa basé mais dañuy téye benn oto ñu woo ma ne ma sëriñ sëriñ diw mooy dem ma leen bàyyi leen ko mu dem amul problème waaw su amee Euh, su amee kii rek blocage rek jéem leen gis le chef la dina def tout ñu bàyyi kilifa bi mu dem daal dinañ gën a sensibiliser suñuy élément par rapport à ça waaw sooy seet sax loolu moom wàññeeku na bu baax sax waaw liggéey bu ñuy def suñu biir la waaw loolu moom dinañ ci def suñu kéemtalaay kattan euh, pour pour pour daal mu gën a wàññeeku waaw mais daal ku dóor sant sant ñu la nga dóor waaw jërëjëf jërëjëf merci beaucoup. kon la jox suñ jiiri Abdul Xaabir mu gaaral ñu ni lim. lu muy wax ñun. ñu ci àggee ñu làq ci ngërëmul borom te mooy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ah comme ni ko Serigne Mokhtar waxee yaakaar naa dama koy tënk rek ci ay tënk yu gàtt gàtt incha allah lii daf di formation boo xam ne yàgg nañ ko def ci biir jumaay Touba ak membre yi daayira Muxaddamatul Xidma yi nga xam ne ñoom la ñuy seqal liggéey ba te ñu féete Touba ak la ko wër tey nag yàlla dogal. ñu séq suñu tànk ñëw ba fii ci ndakaaru ngir waxtaan ak membre yi nga xam ne ñoo féete fii ci diwaan bi waaye it ñu ànd ko ak mbokki taalibe yépp te ñépp rek lii seen bëgg-bëgg di seen jubluwaay mooy jariñu euh, li may njëkk a fàttali rek mooy dayo bu xidma am ci yoonu murit yaakaar naa du jar sax ñu koy fàttali ndax leer na nàññ ci biir mbindum sëriñ bi sëriñ bi dafa jàpp xidma def ko muy principe ci principe yoon wi dëgg la jaamu yàlla principe la jàng principe la waaye xidma principe la xidma nag duñ koy wax ci biir njàngaleem sëriñ bi weesuwul defal nit te yàlla tax ak loo ko mën di defal lépp loo defal nit rekk te muy lu yàlla gërëm loo nga defal ko nit kooku te yàlla tax boobaa yaa ngay xidma Sëriñ Tuubaa nag jàngal nañu ne ñëpp lañu ñu war a xidmaam ñëpp kon ku taxaw ne dangay ngay xidma ak ci daayira boo mën a bokk moo xam baatu xidma da caa am walla amu ca waaye jàpp nga ne rek da ngay def dangay ngay servir jàppal ne yaa ngi defal nit te yàlla tax loolu ngay defal nit te yàlla tax nag dafa am ak pay gu rëy rëy Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu leeral nañu ko ci biir Masaalikul Jinaan wax nañu ne ëllëg yowmal qiyaam bu ñu demee ba teg siroot ci kaw sawara dana am ku jéebaane woote daan ne ana ñi doon xidma buñ nee ñi ngi nii mu ne leen dugg leen gaaw leen dugg àjjana yéen moom kenn du xool seeni dossier da ngeen di ñëw rek dugg kon loolu yaakaar naa doy na sëkk ab soññee doy na sëkk ab dayo waaye doy na sëkk it daraja a buñ ci tegee nag di ko liggéeyal ci barabam yu tedd yii muy jumaa yii ak jàkke yi kenn ku ne xam na ne Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu kenn ku ne xam na fi ko julli fi ko fi mu fi mu tegoon julli ak ni mu ko bàyyi woon xel waaye kenn ku ci ne xam na it jàkka ni mu ko bàyyi woon xel am ak fi mu ko tegoon wax nañ ne euh, fu mu musa romb rek samp na fa jàkk wax nañ ne dëkk bu mu musa sanc it jàkka la fay njëkk a tabax mu nekk sémbul loolu sax bokk na ci li la koy wan mooy booy topp booy topp tànki sëñ bi bokk na ci fi lay wan barab yi lay wan ne sëñ bi jaaroon na fa mooy danga nga fay fekk ay jullikaay kon jàkka fu mu tegoon palaas la waaye ñaan na ko ci ay mbindam ba tàyyi daana wax suñu boroom di ko joxanteeg moom naan ko maa ngi lay ñaan nga defal ma sama kër yépp mu nekk ay jàkka jàkka moomu nag gannaaw bu ko sëriñ bi ñaanee murid yi sabablu ci ba mu taxaw képp ku jugaat ne da ngay servir jàkka da ngay xidma ci jàkka jàppal ne yow yaay waaja dëgg-dëgg ndax loolu suñu boroom moo ko wax ci alxuraan moo ne jàkka yi ñi leen di dundal di leen taxawu di leen setal di leen ñoŋal ñooñ ñooy ñi gëm yàlla dëgg-dëgg innama ya'muru masajidallah mën a billah ba aaya ba jeex kon loolu it maanaam ab dayo la boo xam ne xidma am na ko kon nañu jàpp ne ñi gën a mën a jihaad ci jàkka yi ñooñu ñooy nit ñi gënal sëriñ Tuubaa waaye ñi saxoo xidma mooy ñi ñi ñi safoo sëriñ bi sëriñ bi safoo leen ñaar yooyu rek doy na sëkk ci ñu wax ci dayoob xidma ak ci dayoob liggéey bi dëgg-dëgg te mooy jumaa yi ak jàkka yi léegi nag nga boore ci barab yeeg yeneen ak yeneen yi nga xam ne sëriñ Muxtaar Kan mii junñ na ko léegi ci ay kàddoom euh, moom jumaa nag ak jàkka bu ñu xool ci lislaam daf ko jox ay àtte yu baree bari ak i teggin waaye teggin yi yaakaar naa murid yi jërutul ñu leen koy jàngal ndax mel na ne xam nañ ko léegi jàkka barab la boo xam ne néegub suñu boroom dañu fi ñëw ngir leeral ruux ngir dàggi ay xol ngir yeesalaat pëseef moo tax lépp lu yëllu ci jàkka dañ ko war a sore la jàkk jàkka kenn du fa coow jàkko kenn du fa yuuxaloo jàkka góor ak jigéen duñ fa daje di jaxasoo jàkka kenn du fa dugal lu amul ma moo xam nit euh, euh, ku nekk ci yére wala yu demee noonu jàkka yit kenn du fa wax lu juunu mooy kenn du fa wax ju ñaaw moo tax nag bu yàlla dogalee nga bokk ci xidma ak wala boog daayira boo mën a bokk ne da ngay liggéeyal jàkka teggi ñooy war nga koo bàyyi xel bu baax a baax boo nekkee ci biir jumaa ji fexeel ba bul yëkkati sa kàddu fexeel ba bul wax dara lu ñaaw fexeel ba sa melukaan na rafet ba ku la gis xemmeem la ba bu la gisatut bëgg laa gis namme ko jàkka ji kon loolu ci ay teggini jàkka la yoo xam ne mu ngi ne xas ci mbindum sëriñ bi waaye liggéeyu xidma dafa yëmut ci loolu am na ci biir barab ya ndax dégg ngeen sëriñ Muxtaar léegi wax na ko nee na euh, xidma dafa bokk ci ay liggéeyam barab yi nga xam ne moom la ko sëriñ Sidi Muxtaar féetale te mooy bàqiya ziyaare barab nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme ni ngeen ko xamee mosoon na ko tere waaye gannaaw bi da koo diglewaat borom xam-xam yi wuute ci kan la ko digal ndax góor ñi kase la ko digal wala digalaale la ko jigéen ñi ñii ne góor ñi rek la ko digal ñii ne jigéen ñi mën nañ cee bokk ci kaw sartu bu fekkente ne góor ñi ak jigéen ña duñu gisee yaakaar naa nag daayira bii di Muxaddamatul Xidma bu ngeen gisee seen programme ci màggal gi da ngeen xam ne wàll googu bàyyi nañ ko xel ñi ne jigéen sëñta ziyaare ji ay barab ak barab yu mu mën a doon lañ ko doon ragal muy jaxasoo góor ak jigéen dayre bi moom saafara ma ko ba mu saafaraw kon yaakaar naa ne masala boobu wala àtte boobu jëratul ñu ciy taxaw ñu ciy taxaw lu yàgg képp kuy ziyaare ji ay barab nag ak barab yu mën a doon taamu nañu booy ñëw nga fàttaliku la la tax a ziyaare ji ay barab li muy jariñ mooy dafay delloo si nit dafay leeral ak ruwaam dafay moo yal xolam wax yonent bi sallallahu moo ko waxoon moo waxoon ne dee leen ziyaare ji ay barab ndax loolu dana leen dëdduloo àdduna dana nooyal seeni xol boroom xam-xam yi lim nañ ay mbir yu baree bari yoo xam ne mooy tax nit ki moo xolam mooy gannaaw bu wooyee lii wowal xol nag bari na waaye la ca jiitu mooy ak mooy yàlla mooy yàlla googu nag saa yoo xamee ne sax na ci xolub doomu aadama day dem ba day wow waaye la ko gën a mën a tooyalaat la ko gën a mën a delloosiwaat mooy seet si ziyaare si way dawlu yi ziyaare si way dawlu yooyu nag dafa am ñu teggin bokk na ci teggin ñi mooy bu fekkente ne ay armeel la yoo xam ne kenn wëralewu ko dara fexeel ba bu ko joggi ci boo ko mënee boo xasee dugg it fa li la fi indi dëgg-dëgg te mooy mbir mi mooy boo ñëwee na nga ànd akuk dal ay ay armeel kenn du fa kenn du fa yuuxaloo kenn du fa toog di waxtaan kenn du joggi ay bàmmeel waaye tamit boo ñëwee na nga nuyoo ndax dañuy wax ne ki nga xam ne ñëw nga fekk ko ci bàmmee la nuyu ko boo ko nuyoo daf lay daf lay fay am na ñu naan aleyka salaam nga koy nuyoo am ñu naan asalaamualeykum waaye dañ ne aleyka salaam moom nuyoo boobu ki ko jagoo dëgg-dëgg mooy ki faatu saa yoo xamee ne nuyu nga ko bu fekkente ne xamoon nga ko sax mën ngaa tudd turam nee nañ saa yoo ko nuyoo moom dalay fay loolu am na ay jeexit yu baree bari yu ci am yoo xam ne saxaaba yi daa dañ ko nettali di wax ne diw sàngam dem naa ci barabam gannaaw ba diw sàngam géntal ma ne diw sàngam wax na ko ci man ne seetsi si woon naa ko wala yu mel noonu kon ku ñëw ci ay barab na ci bàyyi xel loolu rawatina nag barabu ku tedd gi muy sëriñ bi radiyallahu anhu bu ñëwee ci barab bi nañu ànd ak akuk dal nañu ànd akuk yar bu ñëwee nañu ko nuyu nañu ko féete kanam tamit dañuy wax ne ni ngay seetsee kuy dund noonu nga war a seetsee way dawlu wala ku ku wane ginnaaw kiy dund boo ko seetsee boo ñëwee da nga koy wan kanam waaye doo ko wan ginnaaw kon barab tamit rawatina barab bu mag boo ñëwee da nga koy wan kanam boo ñëwee nuyoo ñaanal ko man nga ko jàngal alxuraan mën nga ko jéggulul mën nga ko saraxeel mën nga ko defal yeneen ak yeneen boo noppee nag boo ñaan sa aajo nag moom mën ngaa jublu xibla waaye booy wax ak moom ak di ko ñaanal wala yu mel noonu danga koy da nga koy jublu da nga koy wan kanam euh, moom ziyaar moomu baax na lool am na solo lool ci jëmm ji koy def waaye am na solo lool ci jëmm ji ñu koy defal la ci am solo rek ci dëgg-dëgg mooy ñu sàmmante ak teggin yi ab yar bi rawatina euh, orientation yi nga xam ne dayre bi dana ko joxe yaakaar naa Sëriñ Abdou Lahad léegi wala keneen ku jël kàddu dana wax ñaan gi nga xam ne sëriñ bi joxe na ko Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu dafa am ku ko musa ku ko musa laaj ay laaj yu bari ay questions yu bari waaye dafa bokkoon ca question yi daf ko waxoon ne ko dama bëgg nga jox ma loo xam ne bu ma la ci ñaanalee dana nekk ak ñaan gu jëm ci yow waaye du nekk ak ñaan yàlla gu jëm ci yow duaa un lak laa duaa ñaari ñaan moo nit benn mu ñaanal la yàlla wala mu ñaan la yàlla sëñ bi ne ko loolu de ci secret yi yi yàlla nëbb la waaye nag mën naa laa jox loo xam ne mën nga cee jàppandi li ma jox nga mën cee jàppandi mooy ñaan gi nga xam ne Sëñ Abdou Lahad xëy na dana ko dana ko dana ko jàng léegi ci kanam incha allah kon loolu mooy liggéey bi dëgg-dëgg mooy nañu bàyyi xel ne bu ñu ñëwee biir tuubaa tuubaa ci jëmam dafa am wormaam dafa am ak sellug boppam la taxoon borom sanc ko weesuwul jaamu yàlla ak wéetal ko ndax waxoon na ne Touba gii ak Daaru Salaam li tax ñu ma gën leen a bëgg mooy sama yéene daf caa sell bi ma koy sanc sanc ma ko ngir commerce sanc ma ko ngir ngir bay wala dara waaye dama ko sanc rek ngir jaamu yàlla wax waxdahu subhanahu wa taala moo tax ku fa ñëw aspect boobu objectif boobu war nga ko bàyyi xel war ngaa bàyyi xel ne yaa ngi ci juma sa melokaan war nay rafet lépp loo xam ne wax nañ ko ci teggi nañ jimaa war nga ci war nga ciy bàyyi xel képp koo xam ne samp nañ la ci biir barab ya fa nekk wala ñu samp la ci biir armel yi it war ngay bàyyi xel bu baax a baax yi nga xam ne moom la daayira bi di joxe ñu xam ne it daayira bi mbooloo la du kenn kuy wéy di doxal mbooloo nag dañuy diglonte dañuy diglonte kon kenn ku ci ne am nga ku la féete kaw am na koo war a diglu léeg-léeg nga am ku la war a diglu yow waaye boo amee koo war saa yu ne na ngay déggoo ak moom boo amee ku la war a diglu bu la digloo na nga ko wax bu la digluwut na fexe ba mu diglu la bu fekkente ne kenn waru laa diglu nag ngay sax ci woyi ci ndigal loolu mooy liggéey bi dëgg-dëgg ñu xam ne euh, liggéeyu daayira bi dafa laal ci leneen muy wàllu communication communication nag fànn la aar la communication lu ñuy jàng la waaye lu ñuy dund la communication ndax ñi ñëw ay nit lañ ñu wuute te xëy na ñëpp ay murit lañ bu fekkente ne ñëpp euh, duñu ay murit ñëpp ay julli lañ bu fekkente ne ñëpp duñu ay julli ñëpp ay nit lañ te sëñ Tuubaa képp ku doon nit rek jëflante naa yow jëflante ba gën a rafet kon nag képp ku ko taxawal ci barab yooyu war ngaa mën a waaj jekk ci jëflanteek bépp doomu aadama ak sax ku du doomu aadama bu fekkente ne jinne attan ngaa jëflante ak moom kon foofu laa yemale kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullah kon ñun ñëpp ñu waaj ne jumaa ji buñ fi ñëwee ki ni fi andi muy sëriñ Touba liggéey bi ñu koy defal am na ay jëwriñ ku ci ne sa jëwriñ fam na montaloo teg la fa na ko def ni mu la ko sante te képp ko romb kuy jaay kuy jaay walla muy weccee muy manqué wala muy jaay ay xarfu ay béggéen ki téere ki galeen loolu lépp ku koy jaay ku ne dees kaa war a àndale mu pénc ma ak li wër pénc ma weccee mi mbànke dafa xaraam bu kenn romb kuy weccee joxe téeméer jox la juróom-ñeent fukk da ko fay tere ñu mata ne ko yi nuy aaye te sharia aayewu ko jumaa nit mën na faa dugg mbaxana jumaa ja bokkul ak barab ba bokkuñu kiy ziyaara si manes naa wor wormaal la muy def ne suñu mbaxanaam waaye jàkka la ku fenum julli nag doo ko forcé ci sumil mbaxanaam yi sumil ceen geeg yow góor gi tekkil jaaro beeg yooyu na nga ko bu dee góor na solu colub góor dogub góor mu jot la gën nag mu murite bu dee jigéen mu sol colub jigéen bañ koo def dagub góor boole ko bu yaraax bu mu xat mu muur ay këram te moytandiku yi nga xam ne nii du sagub jumaa ji na koo aaye yenn yi bàyyi ko ba ñibbi la gees mooy sëriñ Basiiru Paxaay wax ma ko mu leer naññi mooy ñi nekk jumaa ji di siyaare si yor seeni appareil lu ndoom mu ko tiktok ak seneb saan ak loolu ñu xam ne yooyu moom ren na ci ñépp jàpp bu kenn romb koy def da koy bàyyi fotowu bu boole góor ak jigéen lu mu la mën di wax nanga nga jéem a laabiire ko ba mu boole góor ak jigéen ndax am na ñoo xam ne nii buñ jëlee ay photo ci biir jumaa ji ba ñibbi seen kër teg ci ay musique yoo xam ne nii dañuy jàpp ne loolu am njàng la wala wayu baax la islaam lépp lu ànd akum tëgg ak lu ñu ca mën di wax jàppewu ko am njàngum xasida lu ko jàppe musique waxuñu jël xasida boole kook moom goo xam ne nii njàng la waaye tekki ay misi ci kawam na ko ñëpp moytane ko kon moo tax ñu ne ren montage yëpp ñu ngi ciy bàyyiloo ñu ko jiite ñu wax ak nit ñi ban moytane ko lépp loo xam ne ni day soril day da indil ak ñàkk war mu ko waxe ci jumaa ji bokk na ci jumaa ji fu nu fu ma nekk ñun na ni moytane ko jaxasoo bi góor ak jigéen jëf na loolu màggal nag waa ñu jéem ba bu jëf ko bi fees lool ci biir jumaa yi na nga ko dima aaye ba nit ñi sori ko yéen ñi fa ñëw di bëgg ay image wala ay vidéo wala ay wala ay plateau yu mel noonu wala nga bëgg yëkkati sa drone di jël jumaa ji loolu doxu fa boo bëggee jël image wala nga bëgg jël photo wala nga bëgg a jël interview da ngay ñëw ca ña fa teg ca group ca bureau ba wax li nga bëgg a def noo koy defee koo koy àndal ñu xool ko loo ànd ak yow jox la këyit bu ko for laal képp ku ñëw nag def lu wutal loolu nag bu la jàppee teg la ci yoon. jumaa tamit ñu xam ne ñi naan ñii randal poos randal poos baa ñuy def yoo xam ne nii dafa xaw a sàggan ci biir jumaa ji nan xam ne ñettañ jumaa ji ñettañ jumaa ñett kenn ki mu ngi lay gis ndax daa sol ab sile nga koy gis mu lay gis wala ba mu sol tenue police nga koy gis mu lay gis am na koo xam ne nii sol tenue te ab xidma la wala police la am na koo xamee ne moom ay bëtam gisoo ko caméra bi jumaa jépp ay caméra la foo toll loo fa def mu néew ak a bari mu jekk ak mu ñaaw dees na ko gis te bu nga ko gisee dante ki yoon kon tamit nee na ñun ñëpp ñu ñëw màggal si màgg goo xam ne nii day dëppoo ak charia ni ko borom wootee yar bi ak teg gi ni am ci waaw loolu lan bëgg ñëpp bàyyi xel moo tax ñu ngi waajal ay conference ak ay plateau ngir mën a sensibiliser nit ñi ci màggal gi jàpp nal le douze safar ca Touba ca baas ba ca boori jumaa ja waxtaan woo xam ne nii dañ cee bëgg a woo mbooleem nit ñëpp ñu fekk si ko ngir ñu mën leen wax dëgg-dëggi màggal gi ak nun nuñ ko taxawee fu may jeexal mooy suñ Fallu mu ne yéen mbooleem daayira yépp ngeen waajal seen nit ñi waxtaan ak ñoom jubbanti te bàyyi koy romb nga yóbbaale ko rek ñun am ñi ay membre bokk ci daayira yi information nekk ay kilifa xam ni war a def nan tànn ñooñu ko raaxaloo bi jumaa boo fi nekkee da ngaa war a silwiise yow miy tere da war a silwiise nekk murit piir lépp lu la gaar lépp lu la gaar ki say a ah nga mën koo corriger ci diine bu jegee bii nag mën ko sa sa mentalement sa xel ba pare jëfandikoo sax sa sa conscience bu bu bu jaar yoon loolu mooy liñ ci nit ñi ñu bëgg hmm? Hmm? ok bëgg kon ñu moytu na ko baax jumaa ji bañ koo def aw yoon loolu du sariya saa yi soo bëggee dem mel na Seer Njaay bëgg misaal Seer Njaay bëgg a dem kër sëñ Fallou jël kër sañ saaliwu jaar jumaa yi jéggi dem loolu sariya danga ngaa war a wëri ndax jumaa du aw yoon jaarale ak jur walla auto évidence ci pénc mi loolu sëriñ Saliou da cee waxoon ay wax yu leer naññ da koo tere woon dolli ca di liggéey ci biir jumaa ji te tëkkoo màndarga mun la mën a xàmmee ci nga bokk loolu ko def loo ci jël loo ci loo ci loo ci góobee na ko gar ndax ñun àndal ñun am nan ay màndarga ay màndarga mu ne xàmmee boo ko nekkee yuuxoo yi def jumaa ji yuuxoo yi ak kañu bi sëriñ tubaa ci biir jumaa ji nga jëm ci moom teggi ni nga war a àndal war naa sori lool nga dugg ci biir jumaa ji romb ab bant laal ko romb ab karol laal ko romb ab bunt laal te sëb jë di yuuxu ci barab ba loolu moom duy teggin te jumaa ji nag saa su nee allah pour julli moom ñëpp war a xam dem julli ji moo sës ba pare dem ziyaara ji te loolu na ci ñëpp bàyyi xel la topp mooy jëfandikoo luy tàkk lu mel ne gaz bi na wax léegi nii loolu ñun ñoo ko war a commencé ñun waa daayira ñun ñii ànd tudd xidma di liggéey jumaa ji ñun ñii fukki daayira ñett yi ñoo war a commencé mooy tund ko loolu ci biir jumaa ji ndax gaz yi mu ngi def ci jumaa ji yoo xam ne nii manas naa ñàkk donte jàng na nu ngi koy fayee waaye man jàpp ñun ñëpp ñu bàyyi ko ak jëfandikoo loo xam ne ni bu tàkkee ñëpp daw karo yi ratax na lool escalier yi gudd na lool nga taal loo xam ne bu dawee ñëpp daw daanu di am ay ayib loolu ñu xam ne gënu jumaa ji waaye su ma gisee nag man mi ci bunt bi ma gis koo xam ne nii dafa sol ab siletement akub kiloot bëgg a siyaare si ma bëgg koo ma bëgg koo ñeman waaye li mu sol romb na ay óomam sari nangu na nangu na mu julee ko mu bëgg siyaare man li ma war mooy rek laa biire ko waaye óom ma duwaa dëpp ko ndax li mu sol julli nangu na julli waaye nag naa ko laa biire bu dee jigéen la mu sol lu yaraax baalukat wàccewut ak sàrt ya bu dee ci bunt ba naa ko laa biire mu saay sa yéreem waaye nag bu ma xasee romb la ba ci biir nag ba bëgg siyaar nag nga bëgg koo dëpp nag loolu moom day metti lool ci tey day xaw a doy waar moo tax ci bunt ba lan koy saafara jëm ci kaw waaw wecceeku wi manqué hmm? waaw ni ko suñu Fall waxee léegi nii suñu Ablaat suñu Abdou Xaabir léegi nii lépp luy xeeti fo ñun nag loolu ñoo ko war a jàngale ñun gis ngeen ni mu jàngale ci àdduna bépp ci àdduna bépp roy ci ñun tàqale góor jigéen jàkk yëpp roy na ko ci ñun jàkk yëpp roy na ci koor joxe ay ndogu ñëpp roy ci ñun firi ay xutba loolu nag lan war a jàngale ñëpp ne jumaadu du su ma ñëwee ak koo mën ni amet jumaa ji naa moytu na ko dàqe beeg yuuxoo beeg jàppe ne yow fi nga nekk si kër la déedéet yaa ngi ci néegub yàlla yaa ngi jàkk su yaakaar àdduna ak ala sañ tubaa kon say teggin sa worma sa fulla war naa nekk wuuteeg ngiroom la ngay fo baa nga def lu xaw a doy lu xaw a doyet waaw publicité publicité yi wala ñi ñi may war ñi war a njaay àndandoo sol ay tiset wala yére nuroo yor sa luy luy jaay bëgg a jaar jumaa ji ngir wane ko loolu publicité la loolu fu ko waay gisee na ko aaye jumaa ji du marché du sabar kenn du fa jël am njaay di ko wane baa ngay wane noo bëgg a loolu bokk na ci nga xam ne nii dañ ka war a àndandoo di ko tere ci biir jumaa ji ak li ko wër la la may jeexale mooy nag jumaa ji daa war a set daa war di set Cheikh Saliou Mbacké newoon nañu bi ñu jël ndigal koor gi newoon na lu mën di xew nay set kon ñun muy man muy sëñ Fall suñ jëwriñ ñun ñëpp kenn amul droit romb ak mbuus ak mbuus laa wax ak mbuus ku def ndox wala kayit di ko bàyyi bala ñoo balaa bàyyi yàddeet yéen di bale bu mu gis mbuus bu mu gis aw kayit loolu ñëpp la war nay set te ñu yor wàllu mbale mi ñu gën a góorlu ci mbale mi ak nettoyé bi muy set ndax jumaa ji bu tawee nit ñi dugg si jëli mën naa bari kon na ñëpp taxaw nag ci aar ni aara bunt yi ñu aare ko cat gi ba lépp set wecci ñëpp tamit di jot ndox mu doy sëkk di jot ndox mu sëñ sëkk ku mar mën a naan te boo naan bu su ko yore bu ko sànni am nay poubelle yu fa nekk amu poubelle dugal ci poos bi ba génn waaye bu fa kenn sànni mbuus ñun ñii nag bokk ci ñii aar ak sa jumaa ji ñoo ko war a commencé nag ñun ñoo bu ñëpp defee rek dana jub kon nag ñu ngi xaar effective yi jóge ci daayira yi daayira bu ne ñaata la ngay indi ci màggal muy góor ak jigéen dañ koo bëgg a teel a jot ndax ma a def classement bi ku ne fa nga jëm booy indi kayit bi na nga waxaale yow fukk yii kenn lañ jëm fukki yii sécurité lañ jëm fukk yii ñooy gën nangam ndax bu ko classé mën a xam effectif benn par benn tan xam ne nag ren jii ku ci ne foo monté foo monté am na fiis bu lay topp bu lay topp ndax ñëw nga heure ndax wàcc nga heure ndax def nga sa liggéey ndax bëgg na liggéey bi suñu tubaab lu ko defaloon ne loo bëgg mu nekk loo xam ne nii mooy gën lépp wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi wa xadimihi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen siyaara di leen balo ak di balo ak ñépp di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal suñu mu yàggal ko fi te di leen nuyu ci turu daayira bu xadumatul xidma bi nga xam ne sëriñ bu Bousso imam moo ko jiite ak mboolem waa diro bi ci turu yi ñi nga xam ne ñoom la àndal ñëw fi teewal fi daayira bi ngir def si ak yéen liggéey bu am solo bi muy ci mboolem commission yi yi nga xam ne ñoo seqlu liggéey bi yépp ñu commission organisation bi nga xam ne suñ Fallou Mbacke moo ko jiite ànd ak ñi nga xam ne ñoo topp ci moom te yor wàllu liggéey te liggéey bii nga xam ne moom lañuy ñuy waajale màggal bi lu ci ëpp ci seen loxo la nekk commission culturelle bi suñu Abdou Khadim Bousso mi yor la euh, comité scientifique bi moom it ñëw ànd ak mbooloo ak commission communication jataay bi nag euh, ginnaaw bu ñu nuyoo kilifa yi nga xam ne ñoo ñoom la Serigne Mountakha teg fii ñu yor barab bi di ci jiital imaam yi yi nga xam ne ñoo yor wàllu diine ji di sëriñ Basiiru Lo imaam sëriñ Xaadim ak sëriñ Isaa Gey ñi ngi nuyu alxaaji Mbàkke yu fay jawrin mi nga xam ne moo nekkal sëriñ bi fii ci Ndakaaru ñi ngi koy nuyu bu baax a baax te di ko sant ci dalal bi di jël nuyoo boobu di ko teg ci loxol jawrin yi nga xam ne ñoo nekk fii di xidmatu masalik te sëriñ Tayba Njaay jiite ko ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm di tënk kàddu yi rek li tax ñu indi def jataay bii dafa am solo su ngeen gisee ñi nga xam ne jël nañ kàddu ñëpp tàmbalee ko ci sëriñ Taïba Ndiaye mi ñu dalal colonel si mi nga xam ne mi ngi bàyyi ko ci sapeur pompier ñu yabal ko fi niki noonu lieutenant Fall mi nga xam ne mi ngi bàyyi ko ci police nationale ak sëriñ Abdou Khadir Bousso mi doon laabiire ci ay teggin yi ñu war a làmboo ñun sëriñ Mokhtar Kane mi doon joxe directive yi muy ndigal yi nga xam ne daayira bi jël na ko ngir képp koo xam ne da ngaa war a liggéey si nga xam ne ponk yii la tere yii lañu war a laabiire nit ñi lii lañu war a mel loolu liggéey bii moo ñu andi woon ndakaaru ngir ñu def ko muy lu am solo nag ndax daayira Muxaddamatul Xidma xam ngeen ne fee mu nekk di jumaa ji mooy barab boo xam ne xoli taalibe yépp foofu lañ bàyyi xel kon bépp daayira wala bépp mbooloo mu fay liggéey si amoo droit ci juum ci benn fan ndax ñépp foofu lañu ñu roy ñépp foofu la ñu xool kon li ci war a njëkk ci ci nit ki mooy ñun ci suñ bopp ñu yar suñ jëmm sellal suñu yéene taataan suñu xol ngir xam barab bañ jëm ak barab biñ nekk muy barab bu laab bu sell boo xam ne sëriñ bi fonk na ko lool te teg ko fu kawe kon ñun ñi nga xam ne ñooy jubbantee ñoo war a njëkk yor comportement bu baax njëkk yar suñu suñuy jëmm njëkk yar suñu xel njëkk a yar suñuy melokaan suñ ko defee doo ko mën a jubbante jubbante bi ci gën nag te ñu wax ko léegi mooy nit ku nekk sooy jubbanti nit na nga yaru yow ci sa bopp doogo mooy tax nga mën a jubanti nit mooy uddu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawisati al hasana na nga ko wax ak moom ci laabire njëkk waaraate yu rafet gindi ko wax moom ci teggin yoo xam ne man na laa topp bu demee ba nar a féttéerlu wala muy def loo xam ne du lu dëppoo ak melokaanu lislaam police nationale ñi ngi fi nga wax ak ñoom jébbal leen ko ñu teg leen ci yoon ponk yi sëriñ Moxtaar lim léegi naka jekk depuis 1994 ci ndigalul sëriñ Saliou bi mu sosee Muxaddamatul ma ba léegi ni ñuy setale jumaa ji maa ngi jéggulu sax ci ni ñuy dindee poussière bi walla ñuy ñu fay def luy niru setal loola moo sàmm warma ji ñoo ànd kon sagam liggéey bi bu màggal jubee muy bis boo xam ne sëriñ bi moo ne képp ko xam ne sama bég sa mbég nanga ñëw santale ma yàlla te képp ku dugg Touba fi ak ñëwoo ci jumaa ji day mel ni màggal say boo tegee sab saak rek jumaa ji ngay wuti kon foofa nga xam ne fa la ñëpp di jëm si war nañoo ñëw bu ñu fekkee bu ñëwee fekk fa melokaan wu dëppoog ni ko sëriñ bi bëggee sëriñ bi daf ne wal tudxilil musliha fi yadi wa fi daari wa sabbitanhu bilhaadi wa fi dafa ne sama borom nag ma may defal ma samay barab ak samay ñooñ ñu baax doon ay muslix ay so ba nga xam ne ku fi ñëw waxuma la nga gis leen ñuy meneen melokaan waaye da ngay mën a jële ci ñoom ak mbaax dangay ngay mën a roy ak mbaax ci ñoom kon moo tax lii dafa doon loo xam ne lu munta ñàkk la ci ñu ñu ñu def ko jataay yi ni ñu koy defee tuubaa dafa jaadu kon fii ci Ndakaaru nga xam ne mbooloo mu baree fay ñëw di def si liggéey boobu ni nga xam ne ni lañu sëriñ bi daal defalee ndam mu gën ñoo defal ndam ci melokaan yi yii muy ponk yi nga xam ne tënk nañ ko fi léegi képp koo xam ne yaa ngi ñëw rek nga sàmmonte ak loolu dana doon loo xam ne lu am solo ah mbokk yi nag xam ngeen ne jumaa ji melokaan wu nekk dana fa ñëw ku nekk dana fa ñëw ku ne dana ko fa gis ñéppay ñëw nit ñi dañuy ñëw nit ñi nga xam ne ay kilifa yu baax lañ te kenn mënu leen a xàmmee danañu ñëw junne yi dañuy ñëw junne yi sax ñooy ëpp nit ñi junne yi ñooy ëpp nit ñi kon képp ku fa nekk di fa liggéey rek war ngaa bàyyi xel sëriñ bi ci ne moom dafa jaboot te mbooloo mu nekk ñoo ñëw di ko seere si kon kon war loolu war nga koo sóor su ko defee ñu gën a sàmmonte ak teggin yi te ñu moytu coow lu bari li ci biir jumaa ji moytu wax ji te ànd akub dal lépp loo xam ne lu jigéen war a def la te te te te te mu concerne jigéen nañ bàyyi jigéen ñi ñu defal ko jigéen ñi sëriñ bi mi ngi ko doon wax léegi ci bu ñu dee sécuriser koo xam ne sapeur yi Euh, koo xam ne jigéen la bu xam wala dara niñ koy jàngale góor ñi lañ ko mais bu bu góor def intervention ndax nit kuy jàngale nañ bàyyi jigéen di jubbanti jigéen góor di jubbanti góor sëriñ bi dafa bañ ab jaaxasoo lool kon lépp loo xam ne daal boo ko gisee day niru luy gàkkal diine ñun ci suñ bopp war nañ koo moytu moytuloo ko nit ni ki doon sëriñ bi doon na ko wax léegi siyaar bi da ngay gis ne bu ñuy dugg di siyaare dañuy wax ay baat yu kawe lu am solo la wax jërëjëf sëriñ Touba lu am solo la waaye yaa ngi jëm ci barab bi jàpp naa ne fi nga jëm jëm fa di daw ak a yuuxu ak wadd di laal bunt bi te jëm ci moom yaakaar naa soo taatee ne soxol ànd akuk dal ànd ak teggin ci ngay gën a mën a jariñoo ci moom tamit lu mat a bàyyi xel la lu mat a laabiire nit ñi loolu sëñ sëñ sëriñ Mouhamadul Muntaxa sax daf koy fàttali léeg-léeg ci julli ajuma yi di wax ne de suñ doon bàyyi coow li te ànd akuk dal moo koy gënal kon loolu màggal rawati kon loolu tamit lu mat a bàyyi xel sëriñ bi ay teggin la ñuy jariñoo ci moom xam-xam sax nee na soo ko amee te amoo ay teggin xam-xam bi du am njariñ fa kasratul ilmi bi xayri adabi jaalibatun ilal asa wa taxari kon ñun ñiy jubbantee daal ñoo war a gën a yor comportement boobu te bàyyi xel barab boobu mooy tax ñu man koo sàmmaloo ñi ci des lu am am solo su ko defee sëriñ bi wax na ko léegi ñu sëriñ bi bëggee ñu ñaanal ko euh, këyit yi sa sëñ Abdou Samad Loum dana ko jox jëwriñ yi su ko defee bu ñu ko mënee sotti ku ci mën a jariñu nga jariñu ci leeral na léegi nit ñi siyaaree barab yu baax yi loolu mooy walaabul ci barab yépp ak kilifa bu baax gu mu mën a doon waaye sëriñ bi moom sagam bindoon na ne ku may ñaanal nga ñaanale ma nii loolu it taalib bi bu nekk war na koo xam taalib bu nekk war na koo xam su ko defee xëy bind nañ ko nii ah, ci ci arab du ñàkk daayira bu Xaddamatul Xidma dana ko traduire def ko mbindum français alpha alphabet bi ngir tasaare ko ci réseaux sociaux yi ñëpp mën koo mën koo xam loolu lu am solo kon daal bu ñuy tënk kàddu yi jataay bii jataay bu mat a bàyyi xel la bu am solo la ci suñu waajtaayu màggal ñun daayira mu Xaddamatul Xidma bu am solo la ci fi ñu jëm ci yëpp muy entretien bi nga xam ne jëm nañ ci mu war a tàmbali muy entretien jumaa ji muy laytaay gi ñu laytaayal liggéey bi ci wàllu xam-xam muy conférence yi ñu def muy biir màggal bi ñuy boole juróom benn liggéey wala juróom-ñett yaa ngay bale di setal di jubbanti nit ñi di defar rang yi taqale góor ñi jigéen ñi waaye di xool yi nga xam ne dañ koy bañ ca barab ba nga di ko tere rawatina nag penc mi daayira Muxaddamatul ma moom la sëriñ bi dénk jumaa ji biir ak bitti ak penc bi kon képp lépp loo xam ne lu ñuy tere la ci jumaa ji dañ koy tere ci penc bi te sëriñ Matar lim na point yi léegi ñàkkul point yi yaakaar naa da nga koo jëwriñ yi danañ ko am kon bépp jëwriñ boo xam ne jot nga point yi nga xam ne dañ koy tere nga fexe koo jàllale ci cellules yi nga xam ne ñi nga tànn ngir yabal leen ngir ñu war a ñëw ci biir daayira Muxaddamatul ma liggéey si ñu xam loolu ñoom ñëpp buñ ko xamee rek liggéey bi dana yomb teñ bañ cee dugal lu ci bokk lenn lu ci nekk rek nañ ko teg ci sariya teg ko ci xam-xam loola kat mooy bàkk bi nga xam ne ci la ñu nawee daayira Muxaddamatul Xidma te ci lañ ci lañu ci la ñuy sax su ko defee ñu ñu bàyyi xel loolu bu baax a baax kon ñu ngi tënk kàddu yi foofu di leen sant di leen gërëm te di leen jaajëfal Sëñ Abdou Xaadir wax na ko léegi liggéeyal Sëriñ Tuubaa ku ci yàlla boole rawatina nga liggéeyal ko ci barabam bayee am nga tawféex nit munu cee boole boppam ngóor ak nit du tax nga bokk sëriñ bi rek moo lay tànnal boppam nga bokk ndax sëriñ bi kat euh, wax naa ko barki dem rek ci waxtaan wuñ doon def barab bee di Touba am ngim ko am taw fee xam la waaye tuubaa ku bëgg Touba moo bëgg sëñ bi am Touba ndax sëñ Touba moo wax ne tuubaa ñi ko bëggoon bari na sëriñ bi suñu boroom ci boppam daat ne segam yéen ñëpp samay xejj ngeen kon damay wax Touba mu tànn kan la bëgg mu moom ko nee na sëriñ bi nee na Touba tànn ma man sëriñ Touba ma moom Touba moo tax Touba awma ci moom sago man it aw amut ci man sago kon ñun ñi yàlla tawfeexe la ñu nekk ci xolu dëkk bi fi sëriñ bi gënoona bëgg muy ju muy fee mu tëdd tey di fa liggéeyal sëriñ bi loolu ndam la tawfeex la kon nag yàlla buñ ci gis suñ bopp te ñu fa def loo xam ne day karajal liggéey bi kon lu ñuy soññ mbooloo mi màggal si ak mbooloo mi ñëw ñëpp ni ko sappoor soññee léegi police def ko léegi ñun ñi nga xam ne ñooy ànd ak ñoom liggéey bi niñ ko waxee ñu ànd def collaboration bu rafet niñ ko baaxoo defee at mu jot ba képp koo xam ne ñëw nga fa daal ngir jariñu wala ngir am tiyaaba ngir jariñu ci sëriñ bi nga am ko sëriñ bi kat képp ko xëy nag leneen la fa indi di am marit ñaanuk sëriñ bi dalay topp waaye danañ la teg ci yoon ci saayir tamit nag jan jannatan li zalikil muridi waaye jun wa junnatan xan haatikil maridi ku fa ñëw ngir laneen sëriñ Motaar wax na ko léegi loolu ñu ñuy màggal si ñëpp te jubadi tax leen a jóg war nañ koo bàyyi xel foofu moom bëgguñ ku fay indi ak jubadi ku ko def danañ la teg ci yoon sëriñ bi ñaan na ne ku fa ñëw ngir jariñu suñu borom defal la lu baax waaye ku fa ñëw ngir laneen yàlla na la pakkub suñu borom dal loolu nag ah, waaye ku nar a ku nar dëng moom du faale sax ñaan bu baax waaye ñun ñi nga xam ne ñoo fa nekk rek ñoo leen di jubbanti kon yàlla nañu yàlla defal màggaluk jàmm ñu am li ñuy wut te suñu borom defal ñu tawféex ak taysiir bi barakati xaadim rasul sëriñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la yóbbante nuyoo ci alxaaji Mbàkke yu fay ci turu sëriñ Afiya ak mboolem waa jumaa ji ak daayira muxaddamatul xidma di leen sant bu baax di leen gërëm ci collaboration bi ci liggéey bi ndax xam ngeen ne daayira Muxaddamatul Xidma bi ñuy ubbi masaalik gi ci ndigalul Cheikh Amadou Muntaxa yabaloon nañu fii ngir ñu ñëw taxaw liggéey bi ci wàllu ubbite gi loola di lu am solo di lu rëy tamit ci daayira Muxaddamatul Xidma ñu xam ko loolu tamit seen jëwrin alaaji mbàkk yu fay xam loolu ba jaxasoo bi mu jaxasoog daayira bi rafet na lool ci fànn gépp kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan sunu borom mu defal ñu tawféex ak taysiir asalaamaaleykum wa rahmatullahi jërëjëf si Abdou Lahad kon gën ngaa bari kon sëñ Fall mu ne ñun ñépp nañ àndandoo soññi mbooloo mi ci ndigal yi talaat incha allah talaata danañ commencé lépp lu war jumaa ci ay defaraat jumaa ja dana commencé talaat incha allah ca pile yaag vente yaag poussière baag lépp incha allah dana commencé waajal jumaa ji comme nu ngi kaa fi at yu kon ñu ngi sant bu baax di jërëjëfal ñëpp kon des nag mooy sëñ Sapor la ñuy fekk fii ci mu won ñu nu nuy fayee ab gaas bu nu bettee ci biir jumaa ji baa suñuy kër suñu paree dugg ci biir jumaa julli daal di ñaamelante kon ñu ngi sant ñëpp waaw ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp xam naa sëñ Abdou Khadir ci kàddu sëñ sëñ Mbàkke yu fay njox ko rek mu jël donte ñaari minute la sant ma wax ak mbooloo mi ñu soo génnandoo rekk def ndigal loolu daal di ñaan wa kullu aami wa antum bil xayr asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu ñëpp di tàmbalee nuyoo bi ci sëñ Muntaxa di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér di nuyu sunu sang yu baax yi fi ne man nag damaa tàmmul wax ci mbooloo xaw moo ne sax na muy wax kàddu gi waaye jëwriñ dane woon euh, moom ci boppam moo fi bëggoon teew ndax démb la ko sëñ bi woolu woon mu dem Touba ñëwoon na sax ba daanaka egsi na si jumaa ji sëñ bi wooluwaat ko am na sax ñu ko jot a gis <laughs> mi ngi doon di delluwaat Touba loo looloo tax mu mu mu wutee bés bi waaye ni ko sëñ Abdoulaye waxee sànq rek yéen yéenay sunuy Euh, jëwriñ ci yoon wi masaalik moom ci ronu jumaa Touba la ne rek moo tax luñ ciy def luñ fi doxal itam daf naa nañ woo waa euh, nañ leen woo waa mu muxaddimatul xidma ngir ñu mën ñu teg ci yoon ñu ko sëñ bi waxee it bi ñuy ubbi jumaa ji daanaka li fi xew yépp dañ ko ànd ak ñun te ci seen ndigal lañu ne woon waa ndigal loolu nag ñun si lañ ne ba léegi ndax ndigal loolu lañu jëwriñ jox ne lépp lu ñuy def bi nga xamante dafa war a jëm ci wàllu jumaa ji luñ ci yëkkati nañ ci déggoo déggoog yéen bu waxee xew-xew bu mag la itam boo xamante ne waa Touba yëpp fi ñëw nañ leen jiital te topp seen ginnaaw waa ci ndigal loolu nag la ñu nekk di leen xamal ne ñu ngi rafetlu euh, jotaay bi di leen waxee ne nu ngeen ko bëggee rek ak nu ngeen ko bëggee ak saa su ngeen ko yittewoo ñi ngi ñi ngi ñi ngi seen ginnaaw pour ànd koog yéen ngir liggéeyal sëñ bi rek ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan màggal gi nag ñu egg si ak jàmm te ñu daje seeg ngërëmul sëriñ Touba ci liggéey bi ñuy waajal lenn rek lay insister mooy ci lu sëñ bi wax muy muy teggin yi teggin dafa am solo ci murit te ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a nekk ci jumaa ji nit ñi di ñëw ku ci nekk ci jëmmam dañ ciy xoolee yoon wi ba nga xamante ne ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo fay ne di jubante nit ñi nañu fexe ba defee ko ak tey ak i teggin ba nit ki koo ci waxal la nga bëgg mu def ko ndax nit ki am na looy waxee moom ci ay teggin ak i worma li nga bëgg rek lay def waaye xam nga sénégalais dafa gaaw a tàng bu fekkee dafa ñëw rek nga am noo noo ko noo noo dikkee ci moom mën na am mu gis boppam kon ci wàllu teggi ni daal nañ ci gën a gën a gën a farlu rek te xam ne ñun ñëpp lenn rek moo ñu tax a jóg mooy mooy mooy liggéeyal sëñ Touba Touba nag ni mu ko waxee ñëpp a fay dem am na ñoo xam bëgg nañ sëñ bi ñu ngi xeeñtu sëñ bi waaye yar yar gi ak teggin yi yi murit am ak ñi nga xam ne dañoo judd ci yoon bi xëy na ñoom amuñu lool loolu tamit foog ñu koy ràññee ndax ndax ndakaaru gi yéen a gis xale yi bëri ñu ngi màbb di dem ci sëñ bi mais màbb boobu bu ñu ñëwee xëy na yenn jikko yi dañ koy àndaale mais buñ ko àndee itam ñi nga xamante ne ñooy seeni magu taalibe nañ leen nañ leen teeru rek tatagal leen teg leen ci yoon ndax koo jubanti benn yoon ñaari yoon dana dem ba xam ne lii waratu ko def nga xeex buy dellu si Touba ko def loolu rek laa amoon lu may wax maa leen di gërëm leen sant asalaamaaleykum wa bu ñu mu dar am na kii mu ni cin bu ñu teg mu dar. ah ah للذي ملك يا دوم وكفى كل amul ku yor taalukaay لله الكريم عبدي وشكري maanaam bu ñu ganaar ba ganaar gi xawoon ganaar gi sens bay waaj xam dawlin bu bëri ci dënn bi wa bi xayril wara gis nga bumbu lay def ah? bu dawlin bi sens mu nee bu dawlin bi sensé ba mu waaw léegi da ngay jël sarbet bi ñëw rek muur ko ci kawam nii gis nga benn bi rek da koy fay ñaareel bi tamit nee na dafa fat euh, kii bi euh, nooyi saxaar bi la fat lii rek da koy fat ah. ngeen mën a. comme diwlin su fekkee diwlin mu sens ba ëpp. waaw su sensee rek da ubbi. waaw nga mën a russi mais soo bàyyi ba mu saxaar bu ëpp. waaw su rusee rek day tàkk. day tàkk waaw bu keroogee waaw sarbeet rek ngay jël te eh demal fële toog yi toog ne mu fay moo la mën a dimbali. Hmm. da nga koy upp nii mu def soo ko ubbee ba noppi teggi cin li teg ci suuf soo ko tegee suuf nga ubbi ko tuuti bàyyi odeur bi cóolal loolu mu dem génn dem ba pare ba diw gi xaw a nga doo kuuru si gis nga ko gis nga gis nga morsa bi gis nga ko gis nga nga tooyal morsa bi ba mu tooy gis nga ni mu ko def gis nga ko.